Serigne Abdoul Aziz Diop mi nga xam ne itam nekk nag koo xam ne doom la ci ki nga xam ne itam moom moo di Serigne Cheikh Mbacke jóob nekk nag ki nga xam ne moo itam ca Ndiobène Gunta ca Louga tey moom la ñu dalal kon ñu am mbégte lool waaye nag di ànd sunu yaay Fall Ndiaga ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la ndokkeel di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ak Afia di ko déglu saa si tembe dañuy jël kàddu gi jébbal ko sëñ Abdoul Aziz Diop bu Louga mu daal di nuyu ak mbokk yi sëñ Abdoul Aziz salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki jullit yi bokki dëkkandoo yi ñu ngi leen di nuyu ñoo ngi toog fii tey ci Afia FM bëgg waxtaane ban bis muy bisu Mbàkke Kajoor di bis boobu nga xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moom moom la wàcce woon ab liggéey ca dëkk bu tedd bu sell boobu waaye bala ñuy sori kër gi nga xam ne dañu fi toog ñoo ngi nuyu kilifa gu mag gi directeur bi ak mbooleem personnel bi topp ci ginnaawam ak bi ñu dikkee ak accueillir bu rafet bi ñu accueillir dalal ñu safoonu faaleenu di ay nit yu baax yoo xam ne nii ba jàngi jotee dañoo jàngoon ba xam lu jotee dañoo xam lu woon waaye boole ko yar ak i tegg nekk ay taalibe kon ñoo ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñëw gi nu ñëw fii nag dañu fi ñëw ci ndigalal sunu kilifa sëriñ Basiru Diop mi nga xam ne mooy doomi Cheikh Ousmane Diop te Cheikh Ousmane Diop moomu di sunu maam moo fekk ji woon sëriñ Touba gànnaar ba mu fa demee nekk fa ba sunu borom dogal mu gisante ku baax ko tedd gi mu Cheikh Ahmed Bamba mu nekkandoo fa ak moom ci lu yaatu loo xam ne bis bu xëyee rek ba fare yi dikk toog di waxtaan ak ñoom ñuy waxtaan ba benn bis ci biir waxtaan wi Cheikh Mouhamadou lemin Baara mii ñuy waxtaane tey agsi dal di nuyoo ndax kilifa yi buñ mësaan seen njaboot googu buñ xëyee kenn ku ci nekk dana dikk nuyu ko ba noppi dellu ca sa roq nekk ca ndigal bi mu defee loolu ba noppi nag sunu boroom dogal Cheikh Ahmadou Bamba jël kaalaam dal di teg ci gimiñam dal ni cey mag ñi leeru loolu mu ne naxam am na jëmm yoo xam ne kenn du leen topp dara fii ca kenn du leen topp dara fële ëllëg ca jëmm ji ci la bokk comme yàlla dafa dogal sunu maam nag Cheikh Ousmane dafa sëggoon mu dal di den ak kim del ne ko ah ki ku baax kii wax kan la mu ne ko Cheikh Sëñ Baara Bakke moom it mu dal di yóbbu loola ba ca rog seen mu téye ko fa jamono di dox jamono di dox ba mu jeexal foofa Cheikh Ahmed Bamba dal di ñibbisi nag njaareem bi mu ñëwee njaareem képp koo xam ne fekkoon nga ko gànnaar mu seexal la dafa dal di bind bataaxel dal di lay jox booba nag daamar yi am ya amoon bokkut ñu jox fasu naaru góor benn ngelambu ci ni ñu ko suñuy mbër gu xulee netti leen bi mu dikkee ba njóobeenu ngunte googu na nga xam ne fa laa bàyyi ko sunu boroom dogal mu daal di ne kër Cheikh Ousmane ñu ne ko ma nga nële ndax booba kilifa yi ñoom duñ taamoo dikk ba ci digg dëkk bi dëkk dañuy der seen daaray bopp ba mu répétélee ba agsi ne Cheikh Ousmane Cheikh Ousmane ñu ne ndaw li ci sëñ Touba la jóge maam Cheikh Ousmane dal di dikk mu daal di ne ko jabb leetar bi ne ko képp ku ko fekkoon gànnaar dañoo bëgg nga fekk ko njaareem sama maam seex Ousmane booba la na daal di fagaru dal di takk ay bagaasam ànd ak njaboot gi fekk na ko sunu boroom nattu woon la ci ay xari tabaabiir ca jamono yooya mu dal di rungu xar yépp àndal ak ñoom di dox guddi ngir xar yi nim leen toppatoo ba ñu gareete moo tax du dox naaj bi muy dox noonu di dox ba ci kanam nag boo jant bi fenkee rek mu dal di dal yendu ba ngoon mu dëkk defaat ba àgg ci ko baax ko tedd gi xar yooyu yëpp ak lu mu amoon nag mu jëbbalaat ko sëriñ Tuuba addiya biñ demee ba tasaare xar yi nag gannaaw moom xamoon na ne fu ñu masan toog day dikk toog ci ñoom muy raay ak di defal xar yi di meem di meem di jooy ngir tàqali gi ñu leen tàqaleeg si Ousmane ku baax ki daal di jël kaala gi daal teg ci gémmiñ gi daal na na xam Ousmane kat sa gaa yi miin nañ la ñu daal leen def noonu Cheikh Ahmad Bamba teye fa sama maam Cheikh Ousmane juróom benn at yu tegal ay weer juróom ñaari at yu manqué tuuti ba benn bis mu xëy nag yewwi ko ne ko dama bëgg nga dellu njàmbur boo demee nga toog fa ca bul fa jógati baatu bul fa jógati boobu nag indi lu bari xëy na du xaj ci émission bi waaye loolu moo waral ñun bi sunu borom dogalee mu nekk foofee di Cheikh Ousmane ba saa borom yàlla dogal nag 1927 Cheikh Ahmad Bamba ñibbi si Touba xanaa kon Cheikh Ousmane mi jëbbul woon ci moom amagul amatulub sëriñ muy weral ne nag ci taawam bu baax bi Cheikh Moustapha al naan moom daal sëñ Modou Moustapha bi nekk ci mi ngi njaareem xam naa bu dee njëre moom saxaar lay dugg waaye bu fekkee nag mbàkke kajoor la giinu nar a waxtaan tey nag mu ne moom sama fas wii lañ may takkal fi muy wax loolu ba mu yàgg xel mi ne yar ci li ko Cheikh Ahmad Bamba waxoon ne bul fa jógati mu toog ba mu yàgg mu ne ah man de Ousmane Diop xanaa damay bëgg a ñàkk fayda man de fenn laa dematul di wëri ab sëriñ fii laay toog ci njóobeen ngunte gi ku sant mbàkke ku ma fi njëkk a fekk rek bokk ci njaboot gi mooy nekk saab ñetti fan lañ ca teg Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi nuy waxtaane bàyyeekoo guy mbëtt ca kër Cheikh Moustapha ga oto bi daw bay tolloog njóobeenu ngunte gi ma bàyyi ko fi ñu denc Cheikh Ousmane tey oto bi ndox mi jeex mu ne dugal ci kër gi ñaan fi ndox booba nag oto bu ko ndaw yi gisee dañuy làqatu bañ déggee waaye bañ ne sëñ Baara sëñ Baara rek sama maam kër soxna Faati Yoro moo doon soxnaam am suma mu ne ko jëlal paan gi ñu jël paan gi ñu jàpp muy palax palax xam nga ci ku sëgg ba mu jur sëñ baara rek sëñ baara ne ko sëñ Ousmane xaw ma woon ne fii nga nekk rek dëy yi waaye kon ba tey ñëw naa fi bu yàgg foofee na ko denc nag gannaaw nekkuk Cheikh Ahmad Bamba fi la Cheikh Ousmane Diop sama maam jëbbuloo wate ci Cheikh Mouhamadou Lamine bi mu fi jëbbaloo ci daamar jooju la àndanteeg moom nag indi ko biir Louga ci kër sëriñ baara bi mu ko fa indee itam moom it mhm. tàngoor wi dikkal ko mu daal ne lépp lu mu amoon yóobeen ne ko fekk fii jox na ko ëddee sëñ kon sëñ baara dafay jëmm joo xam ne mhm. waxtaan ci moom lu yomb la waaye lu jafe la ndax foo ko takk rek mhm. moom weesu na ko dëgg la ca nag lu yaatoo yaatoo yaatu la mhm. waaye nag gannaaw yu bare bari du xaj ci émission bi mhm. li tax nu ñëw fi rek muy sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam ne man mooy sama jëwriñ ci kër sëñ Touba foofu dañ fa dëkk kon taarixu euh, màggalug Mbacke Kajoor foofu la soxe ko taarixu màggalu Mbacke Kajoor dañ ko daan def ci nun li nu fàttali ko ci xam ko mhm. muy bis bu Cheikh Ahmad sëñ Cheikh Ahmad Lamine Baara wàcc ab liggéey ca Mbàkke Kajoor bis bu mu làqoo waaw bi mu làqoo ci lañ ko daan def mhm. muy benn fan ci tabaski bi mhm. bi jamono doxee ba Cheikh Saalih nekk sëriñ tuuba dal di woo sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar waxaat ko bis boobu mu leeral ko mu ne ko nañ ko indi ci bis bi mu ganee jamono loolu moo tax ñu indi ko ci rakkaati gàmmu yi mhm. mu nekk ñaar fukki fan mhm. ak juróom-ñett ci mhm. rakkaati gàmmu yi nga xam ne mooy moom lañuy ñu séenu nii ceem tax ñu fi ñëw mu tombeek reen nag le 12 décembre ca Mbàkke Kajoor bis boobu nag dafay bis boo xam ne ci bisi Serigne Touba yi gën a mag ki la bokk ndax Cheikh Mouhamadou Lamine ak seex Moustapha ñoo bokk soxna Aminta Lo bokk Xaadimu Rasuul soxna Aminta moomu nag néegam dafa nekkoon fii jumaay Tuubaa nekk tey Cheikh mhm. Mouhamadou Lamine nag foofu la ganee jamono gane jamono googu nag lu bare bare bari di ci dikk ci taarix loo xam ne bi nga xamee sunu borom loolu am na Cheikh Ahmad Bamba ci boppam dafa daal di woote mag ñi ñi ko daroon ñépp mu woole daal di ne képp ko fi dikkoon tey faju aajo xamal ne gan gii dikk tey indaale na fajug aajo nit ñëpp muy Cheikh Mouhamadou Lamine moom mhm. ca nag ganee tuuba ba noppi ganee fii jumaa ji nekk tey ñu dopp fi seexul xaddim seex Mamadou Lamine dong la ko suñu borom defal nag mhm. ci njabootu seex Ahmad Bamba mhm. kon sëriñ Baara moomu wax ci moom lu jafe la ni ma ko waxee waaye lu yomb la bis boobu nag dañu bëgg lépp loo xam ne waaye mën na ko wala mu am ko wala mu xam ko noo ngi ko ci woonun ci rawatina région de Louga bi ca jiital nag ca woote booba sama rakki bopp ji nga xam ne mooy sëriñ Youssou jóob mu topp ci man sës ci man rëkk nga xam ne mooy sama porte paral ci lépp lu jëm ci màggalu Mbàkke Kajoor gi teg naa ko ci loxoom mhm. Cheikh Moustapha Al Karim bi mu dikkee kër gu yaatu di ñaari parcelle la ñuy defaral foofu màggal nañ ca ñaari at bii moo ko nar ñett yel nu ñaan yàlla fekke ko ak jàmm mhm. lu nu am nag wala lu nu xam ak ku nu am nag ak ku nu mas lebal nag mhm. na nu fay si ci bis bii di Mbàkke Kajoor yoonu murit bu doon ab taal la ñu ne kupp tudd aw xal ba mu leeral foofu rek Mbàkke Kajoor nga ko jële ndax maam Cheikh Rafal baabul muridiina foofu la jébbaloo ci Cheikh Ahmad Bamba ci weeru koor bi mhm. muy lu yaatoo yaatoo nag suñ jàmbaari lislaam jee fa nekk nag di ko woote na ko ay way juróom wu doon wootee sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar ku nekk xam ko sëriñ mu wóotu sëriñ Abdul Aziz Baare mi ñu ma duppee di jàmbaar yooyu xam ne boo dikkee ba Mbàkke Kajoor nga dikk fa da nga xam ne nag fii daraa nga fi mhm. moo tax man damaa yéene ñépp rek dikk dikk Mbàkke Kajoor kenn ku mës mës dikk ku nekk itam damaa bëgg kenn ku nekk daal ci tënk mhm. nga indaale fukki nit yu mës sa dikk Mbàkke Kajoor cay nekk ci li neex sëriñ bi mhm. ndax nag waxuñu dem Mbàkke Kajoor rek topp mbumbaay maag xéewal yaag bernde baag yooyu déedéet dañu bëgg képp fa dikk li nga xam ne moo neexoon Cheikh Mouhamadou Lamine neex sëñ Abdou Aziz Bara neex sañ sëñ Sidi Muxtaar ba ci sëñ Moustapha mii ko woote nga nekk ci loolu muy jàng al alquranil karim di jàng xasida ak di bernde ak di def ay listixfaar foo teel fu nekk daal nga xam ne jaamu yàlla moo woote jaamu yàlla kon nag na ñëpp ñoo Mbàkke Kajoor fas yéene dundal guddi googu ak bëccëg bi ak guddi gi lu ci waay man mu def ko xam naa daal sëñ bi nu euh, taxawlu foofu tuuti dama bëgg nag léegi ñu dëkk ci ki nga xam ne moom moo di sa maam ndax bëgg naa tam ñu xam kan mooy sa maam ak jaar-jaaram diggante moo sëriñ Bara loolu nag moom xam naa ne mel na ne daal lëggoo jële ci am mbooya sànni ko ci ab lay mooy la maanaam xéewal rek la fa gis te lu mu xam lay doon ndax ci loolu la ganee jamono <laughs> kon nag bu Abdou Aziz Diop dikkee di sëtu Cheikh Ousmane uh-huh. nga laaj ko ci Cheikh Ousmane uh-huh. noonu rek laa la ko mën a misaale ci tënk ndeysaan neex na Cheikh Ousmane nag moo nekkoon jàmbaari lislaam Mm-hmm. nekk foofu ca njóobeenu ngunta mm-hmm. ba mu fa nekkee di liggéey di dunde aw ñaqam di jaamu yàlla mu dem ba jëmmi jamono mu gént gi seexul xadim wax ko way juróom wu jigéen soxna ami Amina Ñang ne ko a ah, man de ku baax ki dama koo gént fii ci penk bi ci la dama ko bëggoon a seeti ji soxna sa jël gimiñam teg ca jël loxom teg ca gimiñ nga ne ko Ousmane Diop li ngay wax xam nga ko àll bii nga xam ne timis bu xasee jot boo génnee fii bukki yi ak segg yi ak yooyu lii lore yooyu ñoo fi nekk njàccaar yi sax mënuñoo jéem a dox ne dañuy dem gànnaar yow ngay silmaxa ba noppi ne damay dem gànnaar ah loolu de bu ko sa xel xalaat moom itam ci fonk way jur ak bëgg lu ko neex mu bàyyi lool ñu doxalaat ba bis ba delsiwaat ca déwén sa mu dikkaat mu feeñu ko nam ko feeñu woon mu dikk tàgguwaat ko ba noppi ne ko nag maa ngi lay tàggu nag waaye dama bëgg nga bàyyi ma ndax mënumaa ñàkk a gis ku baax ki moom it mu daal di xam ne nag kii am na bëti baatin mm-hmm. mu daal ko ne nag kon dama topp loolu la yóbbal booba nag seen yóbbal ak nun suñu yóbbal bokkut mm-hmm. ndax booba dangay daldi wut dugub bi suuna daal di koy defar soq ko foofu ko def ci la ca war lépp def ko cere woo woyar ko ba mu wow jamono yooya paan yi ak yi xew xewul ab béy ab béy boo ko lottelee moom ngay def am mbuus wulli ko defar comme set ci ngay def ndox mu set di ciy def cere jooju Cheikh Ousmane nag am ci yóbbal boobu lu doy takk ndiggam nag daal di ne fas yéene dem gànnaar fekk Seexul Xadim di yendu ak fanaan booba nag nit ñi guddi la ñuy dox bu bëccëgee fu la jant fenk rek ba mu naa tàng tuuti yoor-yoor bi da ngay daal di dem ba ca pénc ba ne nga dallu fa te ci biir dallu googu nag gis loo xéewloo dafa jafe te jamono yooyu waaye Cheikh na soxna Amina Ñang mi woy juróom defal na ko yóbbal bu doy boo xam ne dana ci mën a dikk di ci dem ba ba muy àgg ak ku mën a dajeel ci yoon muy def loolu ba mu yàgg mu dajee ñaari jaay yàlla yu mag yu toll seen kàttan di ay waxambaane bañ gisee ñu déyante ne waaw kii di daa mel ne Cheikh Mala kii ne silmax ñu ne kii de boo demee ci sëñ bu mag bi la jëm kenn ko ne yoo xanaa da ngaa dof njàccaari fii tax buñ déggee bu nga yox sëñ moom mu ne ah ma ko gis ak pas-pasam bi mel na fa la jëm ñu dikk ba toll moom déey ko daal di ko ne ko ah ku baax ki noo tudd mu ne ko Ousmane Diop mu laaj leen seen tur ñoom it ñu wax ko ko mu ne ko waaw foo mu ne ko ci ko baax gi mu ne ko ah sëñ bi ñu waxtaan noonu ba ca biir ñu àndante ñuy wetti ligoonte ci biir wettilikoon ligoonte koo nag xéewal gi Seex Usmaan yor tax na ñoo ñitam ñu tàqali ko moom ndax xéewal booba jafe na da nga yendu cib dëkk ba bëccëg nga jër ne maa ngi war yalwaan ndonga laa ngi yalwaan da nga wër dëkk ba yàgg bu ñu jël ñu ne ko ndongali kër gi ñetti dëkk bi ñetti ci tey tey cin ko fi nga naan damay yelwaan nun buñ gisoon lu nu sar lu nu sarxe noo koy sarxoo naka ñoo ñu ak seen jaax sama maam moom du yelwaani fenn ndax moom defal nañ ko yóbbal naka mu dellusiwaat ba ci biir nag ñooñu daal di gis mu ne nun de wër nañ wër waaye amuñu dara so ku baax ki daal di génnee kasti looram génne gurtu bi muy def ndox génneem yëpp daal di fekk ci mbuus mi di nëq di ci def ñooñu dar seen gi mi muy nëq ba ne làmb làmb ba ne bañ na baax na ñu ne waaw mu daal di génne ndox mi sotti ci toog tuuti mu daal di sekki ba fees bool bi ñu jël suukar daal di cay def ñu jëfandiku ba ñoo ñu nag xéewal googu tax nanguwuñu tàqale ko Cheikh Ousmane ñi àndante waaye nag daañu ndax ñoom daañu tële ca Cheikh Ousmane du tële ñu doxal doxal ba ci ay fan tànk yi galt ba neew yi sëñ bi daal di takkuwaat ne ñoo ñooñuy daal di ne ko ah ñun de sëñ bi wax dëgg yàlla bëgg na noo ànd ak yow ndax li ngay yor cam jafe waaye mënatu noo dem mu ne ah kon de bisimilah daal di takku moom dem sunu kilifa gu baax sëriñ bër gu xullee nettali ko mhm. nee na booba Cheikh Ousmane nee na bu may dox nee na tubéy gi mu yor tubéy gi nee na ni muy lëgër lëgëree day mel ni lu koy lëng mhm. mel ne fa xambaane ñaar fukki at ak juróom lay bëgg a euh, songool ngir cawarte gum cawar mhm. di ko def ba àgg ci ku baax ki dal di nuyoo jàmmante mu ne ko na nga tudd mu ne ko kii de gumba gu ñuy wax Ousmane Diop la bàyyi ko njaambur Cheikh Ahmadou Bamba ne ko Ousmane Diop tuub ko nun gumba duñu gis mu ne ko tuub ko mu ne ko tuub naa ko mu ne ko nun gumba duñu gis mhm. yor say bët ne xaj ji taxul di gis bëti xol moo am solo mhm. mu daal di koy dalal mu nekk fa ba xëy ba ni mu ko yeewee ñooña nag ci seen waxtaan ñuy waxtaan yàgg ñu ne ah sëñ bi ah xam nga bukki yi gaynde yi lekk nañ ko bu yàgg ay fan yu bari ñu loori dikkaat ba mu yàgg ñu dikk ñoom bañ accès ñu xool mhm. kenn ki ni kii de kan dajaloon Ousmane Diop mu ne ko doomaam mu tax mu ne ko sëñ bi mhm. noo tudd mu ne ko Ousmane Diop leen dajaloon ci dëkk sànga mu ne ko waaw kañ nga ñëw mu wax ko ko mu différence ak ñoom bis bi ñëwee lu yàgg loolu wane ne Cheikh Ousmane ca jàmbaar yi ca nit yàlla yu dëgër yi ca la bokkoon ndax ca jamono jooja melul ne tey avion amul oto amul sareet amul fas war sax amul nga xam sa doole rek ak sa tàng nga yaakaar nga bàyyi koo njàmbur di dox di dox di dox di dox di dox ba àgg gànnaar fekk fa seexul xadim kon seex Ousmane jóob moomu nga xam moo jur sëriñ seex Mbàkke mu jur ma kooku ca ceex gu njëkk ga la ceexe seex Ahmad Bamba moo ko seexal ba mu defee loolu ba noppi ne mu dikkaat ak moom ba yewwi ko mu delsi mu dikkaat ak moom njaareem mu dëkk fa ak moom ci laa la wax lim boobu ci la ne ko dellool njàmbur ca bul fa jógati baatu bul fa jógati boobu nag moo waral nun ba léegi armeel yooya mhm. népp nu armeel nit yu baax yi def nañ ko ko mhm. boo fa duggee fa la ñuy denc mhm. ku am ku fa bàyyi ko ci biir kër gi yóbbuwun tuubaay yóbbuwun feneen foofu la ñuy denc ndax ndigalal Cheikh Ahmad Bamba la ci Cheikh Ousmane Diop ci njóobeen gunte ga ma bàyyi ko waaw kon daal loolu ba tey ci yëf yi la loo xam ne Cheikh Ousmane moom tund njaambur xam nañ ko ndax mu amoon nag taalibeem bu mag ca baax ñu di koy wax Baay Daawuda Njaay sunu maam ju baax la woon mhm. ci ñi njëkk a jébbal ak Mapenda jóob ca Yabatil Diop mhm. maa ngi nuyu taawam ba fa nekk Cheikh Diop di jëwriñ ci kër gi waaye di nuyu itam bokk yooyu nga xam ne yëpp dañoo kàngam la ñu àndoon nag sëriñ Cheikh Ousmane sunu maam mhm. sunu na jaay Cheikh Baara doom sëriñ Damfari moo fi nekk ci kër sëriñ Baara sëriñ usmaan Cissé mu baax mi nga xam ne moom ci ñi fekk woon sëriñ Cheikh Ousmane di waxtaane ñoom ci la bokk moom it mu ngi foofu kër sëriñ Baara noo ngi koy nuyu di nuyu ak njabootam moom la tàmbalee ca moom ba ci ak njabootam dara mooy ci kër gi ñëpp ay taalibe lañ ci biir kër gi mm-hmm. kon nag loolu daal nga ne nduukuk ne yabbatil jóob ba ci tuubaa gi nga xam ne moom la ñëpp yaakaar itam daara yaa nga fa gone yaa nga fa lépp nga fa lépp loo xam ne mag ñi sosoon nañ ko bàyyi ko fa itam boo dikkee njóobeenu ngunta fekk ko fa moo fa nekk ba léegi njóobeenu ngunta ci Mbàkke ci Mbàkke Kajoor la bokk njóobeenu ngunta ci région de Louga la Louga la nekk waaw boo dikkee ba Louga mhm. jëm yoon wi jëm kër Momar Sarr nga di ko jaare Ñomre mhm. Ñomre mooy sunu commune mhm. Ñomre mooy sunu commune dëgg la xam naa maa ngi ci nuyuwaale suma maire mu baarak loo ak mboolem Bamba ñoom loo ñoom ba ci ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ca maire yi ba ñoo ngi koy soññ di leen sañu ak Cheikh Ka ak mboolem njokki ñoom rek ñu leen di soññ ci bis boobu Mbàkke Kajoor la douze incha allah ñu del siwaat ci màggal gi mhm. ndax euh, li ñuy def boobu ba léegi itam mi ngi bëgg yàgg mhm. euh, li nga wax léegi ndax dafa di wax joo xam ne ju am solo la mhm. ndigal la joo xam ne mi ngi soqikoo ci Sëriñ Saliou Mbàkke moo ngi wax sànq est-ce que mën nga ci del siwaat waaw liñ ci mën na dellusee ci leeral bari xam-xam ndax euh, dañ ko tënkoon rek ne ah. war nañ dem ba dikk jërëjëf li bari xam-xam moom mi ngi tàmbalee ci wax li nga xam ca kenn du ko mën a teggi dëgg la loolu mooy bari xam-xam mm-hmm. waaye boo gisee ñu ne la mi ngi tàmbalee maanaam màggal gi tàmbaleewul ci sëñ Saaliw mm-hmm. waaye nag bis bii nga xam ne ci la ñuy màggal juddub Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mm-hmm. ci làmmiñ Cheikh Saalih Mbakke la bàyyi ko tab dugg ci nopp sëñ si Sidil Muxtaar mii nga xam ne nag ab taawam tey di sama sëriñ di sama jëwriñ ci kër Seexul Xadiim moo koy woote kon ànd kooku way juram sëñ Amadou Maxtaar mi nga xam ne mooy Daaru Xuddoos ndax na képp ku yilif Daaru Xuddoos yaa képp ko koo xam ne yaay kilifa yaay yilif Daaru Xuddoos yi gi mbind ndax Cheikh Moustapha moo tax ak Cheikh Modou Lamine Baara kon màggal gi mi ngi bàyyee ko ci sëñ Saliou Mbacké ndigal li ndigalal màggal gi mhm. bam tàmbalee yàgg na mhm. waaye dañ ko doon def bis bi mu ganee jamono mhm. di benn fanu tabaski bi bi Cheikh Saliou toogee nag. Mhm. la soppi bis boobu rek waaye màggal gi tàmbaliwul ci moom. Ah, màggal gi tàmbali na bu yàgg na yàgg na ah. yàgg na màggal gi tàmbali na bu yàgg. waaye bi Cheikh Saliou toogee nag. Mhm. lañ ko la woo Cheikh Sidil Mokhtar. Mhm. laaj ko bis boobu ak ni mu koy màggale ci ndigalam nag ak yoonu murit ni mu amee ndigal loolu moo tax nag sëñ Saalih Mbakke jox ndigal sëñ Cheikh Sidi Muxtaar mu di ko woote nag ci bis bi nga xam ne ci la ganee woon jamono loolu moo indi woote boobu waaye nag màggal gi woote nañ ko lu yàgg yàgg yàgg ndax lu yàgg yàgg la euh, ci jamono Cheikh Mouhamadou Lamine Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ibnu Cheikhul Khadim muy koo xam ne ku jafee xam la mm-hmm. waaye itam ku naqadee waxtaan la waaye ku neex a waxtaan la mm-hmm. macha allah ndax itam uh, ci dëggu ga mm-hmm. waaye tam macha allah ci ragal yàlla ga waaye tam macha allah mu nekk koo xam ne ñëpp ko ràññee moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñu ràññee leen itam mooy turandoo Serigne Bara Mbacke mi nga xam Euh, moo nekkoon euh, sët bi nga xam ne moo jëkk a toog ci xalifa gi mm-hmm. euh, loo ñu mën a baaxee foofu itam waaw Cheikh Mouhamadou Lamine dafay jëmm joo xam ne ni ma la ko waxee ci njëlbeen wax ci lu yomb la waaye lu jafe la mm-hmm. ndax boo seetee at yi mm-hmm. lim fi am ci jamono ak lim fi bàyyi ci njaboot macha allah ca ñëpp ci njaboot googu kenn koo ci gis rek tey mu mat ko sëkk loolu rek firnde la ci Cheikh Mouhamadou Lamine Euh, jàmbaare ju jàmbaare la woon mm-hmm. muy jëmm joo xam ne ni boo koy xool mm-hmm. bi nga xamee sunu borom dogal na ku tedd ku baax ki mm-hmm. di dem ci tukki bu rëy boobu ca indi leen boole leen nagam yu baax ya ñuy bokk di jàng alxuraan ci sëñ daam Abdourahman Lo doonte am na ñeneen ñu jaaroon waaye ñu yem ca ndaam ca kenn ku nekk xam ñooñu ci xam-xam wala ci alxuraan ca alxuraan alquran mooy buntu lépp loolu bañ fa bokkee di nekk Cheikh Mouhamadul Lamine yu yéeme daa amoon ci moom ndax nii nu jàkkaaroo maanaam may wax bu baax nga di ko dégg wala ngay wax ma di ko dégg loolu euh, duñ wax lu mu tële woon la ndax ndax moom tëlewul dara waaye nag loolu du woon lu yomb ci moom diggam ak bindeef yi mhm. bi mu fi bokkee di nekk li gënoon a jaaxal nit ñi kenn ku ci nekk dañ la daan bindal ngay dem di jàng waaye moom ci lu ko neex la daan nekk waaye itam buñ dikkee ba di ko wax ku baax gi day wax ne nañ ko fa bàyyee rek waaye bis biñ demee ba nga xam ne ñaari magam yu baax yooyu ñu ngi bind ay kaamil muy Cheikh Moustapha mii magam ak Cheikh Mamadou Fadal moom it daa laaj kayit di bind kaamil ci koo xam ne bu nit ñi doon toog di jàng yow toogandoo woon ak ñoom mhm. ca bi mu bindee kaamil kaamil bi mu bind ba joxe ko ku tedd gi macha allah kenn kenn mënu laa wax rafet gi ak dara loo xam ne ni lu ci wërta am ca amu ci nekku ci mhm. kooku ku sunu boroom waajaloon la muy jëmm joo xam ne ni nun danoo xamul ku dul moom mhm. waaye amuñu lu dul moom mhm. loolu moo tax bis bii lu nu am mhm. wala lu nu man wala ku nu xam ak ku nu xam ne boo dikkee ca Mbàkke Kajoor da nga jariñoo dañ lay bëgg a buub yóbbaale cey nag wax na ko ca wolofalam ba muy Cheikh Mouhamadou Lamine lan la wax mu ne baatin ba jaaxal na kajoor mhm. moo tax ñu far ko lëm ca biir mhm. soo ko gisee ma ngay bëngeen mhm. nekkuy lu mat si xarnu bi faj aajo moo ca gën a gaaw lu mu wax boroomam dana waaw day fal di folli ci gaaw man naa ragal ci xarnu bi waaw koo xam ne day faj aajo nag xanaa wax dëgg yàlla nun ñi toog ci studio bi ñëpp fajug aajo leen bëgg gannaaw day faj aajo nag ca moo woote ci bëgg nañ faj aajo nag man Abdou Aziz maa xam ne képp ku bëgg sa aajo fajo demal Mbàkke Kajoor boo fa demee ba delsi bu delsee nga nattaal sa bopp bu déwénee nga nattaal sa bopp day am ñoo wax naa leen yóbbaale yaa waay yox kenn waxtu say wax ci dem gi dëgg la dëkk boobu nag nun daal ci tënk daal mm-hmm. moom la ñu xam xam ko bëgg ko juddu ci ci fas ci yéene faatu mm-hmm. ci lépp lu nu am daal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara du ko génne mm-hmm. lii daal moom ci waxtaan wi eh, dana la ko ci baaxe di soññ itam nag Grand Yoff gii nga xam ne nag yàlla dafa dogalaan man 1981 laa fi sancoon di bisu gaawu ne suba laa fi sancoon gannaaw gi laa fi génnaat rek dem ci réewi nasaraan yi waaye bi ma del si waaye itam noo ngi fiy sant yàlla ndax lu fi nit ñi am am nañ ko fi waaye nag fii nu tolli wolof di wax sagar jege bi san mhm. maa nga Louga <laughs> région de Louga ca commune ñoom rek dëkk bu ñuy wax njóobeenu ngunta mhm. foofee nga xam ne tey fa lañ denc Cheikh Ousmane Diop mii tax ma toog fii di wax ak sëriñ Cheikh Mbacke Diop mi ma jur ba ci ñaari doomam yu baax yi muy sëriñ Daam Diop sëriñ Malick Diop moom lañu ci denc ci Touba waaye ñu ci des ñëpp ña nga foofa. màggal gi màggal gi mu mel ni kii dégg dama dégg sànq ci seen avant première bi ngeen def appel bu am solo. Mm-hmm. Euh, programme bi nan lay tëddee papa. Mm-hmm. programme bi ci màggal gi nan lay tëddee. programme bi ni muy tëddee muy fas ko yéene waajal ci li nga xam ne moo gën ci lu ñuy waaj. ndeysaan. muy jàng alquranil karim Mm-hmm. macha allah ak jàng xasida mm-hmm. ak lépp loo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba bëgg na ko Cheikh Mouhamadou Lamine bëggoon ko Cheikh Moustapha mii ko woote ci loolu dong la woote mm-hmm. muy jàng alquran ak jàng xasida ak taalibe yi dimbalante ci seen biir loolu noo ngi koy sàkku ci taalibe yi nga xam ne képp koo xam ne daal dangaa jóg ca fas yéene dëgmal Mbàkke Kajoor na nga xam ne du bis bu ñuy foo du bis bu ñuy waxee lenn lu dul daal jaamu yàlla lañ fay màggal muy Cheikh du Lamine mhm. kon képp ku fa dem rek na nga nekk ci lu baax loolu ndax ku sëriñ Serigne Touba ne alquran ku ne njabootam ne alquran jërëjëfatit loolu nag danaa dégg ci yenn ti kilifa yi ñu ne ñu ne képp koo xam nii mhm. tabax nga jumaa mhm. faat waxtu wóoru la dëgg la ca itam nun ci lu mel noonu rek lañ nu yar moo tax nag nu bëgg daal bépp jullit kuy wax sadu an laa ilaha illa ak tarixa boo mën a bokk rek mhm. noo ngi lay woo Mbàkke Kajoor ci bisu Cheikh Mouhamadou Lamine boobu mhm. nun moom la nu am moom la nu xam mhm. kon daal noo ngi sant bu baax ndax waxtaan wi bëggoon nañ sax mu gën a yaatu waaye nag dañoo jóge ci ay coona ca rek ñu toog tuuti rek directeur comme moom dafa xaaritoog soxna si lu bari kër di kër mu di fi ñëw waaw waaw loolu incha allah ci kanam lay doon euh, loolu euh, li nga bëgg a wax ni ah. xam naa ko waaye ci kanam lay doon moom mu mel ni kii màgg màggalu ku Mbàkke Kajoor bokk na ci màggal yi nga xam ne itam mu gën a yaatu ginnaaw màggalu gu mag gi ak euh, li nga xam ne mooy itam màggalu ko sëñ Fallou Mbacke ndax damay dégg sax footu a ci dëkk bi ma ñu ngi waajal màggalu Mbacke Kajoor bokk na ci programme bi nga xam ne tam boo xoolee màggalu Mbacke Kajoor xam ne itam màggal gu am solo la nga xam ne itam ñëpp war nañ ko bàyyi xel xanaa sëñ euh, Abdoul Aziz waaw xam nga Mbacke Kajoor mhm. wax naa la ci njëlbéen ne mhm. yoonu murit bu fekkoon ne ab taal la mhm. foofi seen ñuy taal rek xal yu foofu la jóge kon lu yàgg la lu yàgg la ndax foo xam ne maam Cheikh Rafal Baabul Muridina fa la jébbaloo ci weeru koor gi boo demee gi gisu bàmbaa nga fa foofu la foofu la maam Cheikh Rafal jébbaloo foofu la maam Cheikh Rafal Baabul ci Mbàkke Kajoor ak kàngam yu bari nag yoo xam ne buñ ko doon lim dana bari mhm. kon Mbàkke Kajoor lu yàgg la mhm. ndax ku xool e, ku xool maam Cheikh Rafal nga ne fa la jébbaloo mhm. kon xoo boobu màggal war ngaa xam ne lu yàgg la Cheikh Mouhamadou Lamine nag mhm. ci Mbàkke Kajoor mhm. day bis boo xam ne nii mhm. man dama bëggoon bu baax a baax nit ñi gën a xam lan mooy Mbàkke Kajoor waaw loolu foofu nag laa jëm foofu laa bëgg njëm sëñ bi dama bëggoon nit ñi gën a xam bu baax a baax a baax lan mooy Mbàkke Kajoor ak kan moo nekkoon Mbàkke Kajoor ndax nag Cheikh Mouhamadou Lamine day kenn ci doomi Serigne Touba doonte donte nag doomi Serigne Touba buñ ne laa waaw diw yow njabootu Serigne Touba ku ci gën yow kala laaj ne ko waaw yow koo ci xam kum ne la diw laa ci xam rek ne ko kooko ci gën loolu dey firi ñëpp a baax moo tax koo ci topp rek ba ca biir da ngay defe ne kii sëñ Tuubaa mënu ko woon ñàkk waaye Cheikh Mouhamadou Lamine wax naa la ci njëlbeen ne li sunu borom dogal mu am ko fi ciy at ak lim bind ci ay kaamil bind ko ci ay xasiida ak lim fi am ci at ak li ko sa borom defal itam ci njaboot nga xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine ca góori yàlla yu mag yee ca la ko yàlla boole ca nag kii nga xam ne nii tey di moo fi dikk wuutu ko tooge jataayam tey di sët bi njëkk a wuutu Cheikh Mouhamadou Lamine ci xilaaf gi muy Cheikh Moustapha Mbacké mhm. moom yàlla daf ko bindal noo xam ne loo xool ci Cheikh Sidil Muxtaar rek ngay gis ci moom ndax daa jiital ay rakkam jiital taalibi topp ci moom muy seex si ak ñëpp donte moo leen jiitu daf leen a jiitalaat na kenn ku ci nekk mu bàyyee la ak la nga yor ca lu mu am bokkook yow ca gis nga sañ baj mm-hmm. boo nekkee comme nay mm-hmm. ba noppi ñu lay diw mi daa nay nga di ko ñaan yaa ko tooñ dëgg la fexe yow loo am jox ko mm-hmm. ca moom lu mu am nga bàyyi ko yow moom kon du ngeen xuloo Cheikh Moustapha nag noonu la mel rakkam yi nga xam ne mooy buntu kër sëriñ baare yi kenn ku ci nekk daf laa bàyyee lépp ba noppi topp ca gannaaw di la sër waaye waaye ku xam li muy def na ca noppi nag taxul dib dof moo tax suñ jàmbaar lislaam jooju daal bis bii nga xam ne mi ngi koy wooteel maamam gi man Abdou Aziz maa ngi ñaan ci yàlla yonent bi ak Serigne Touba ak barkeem yàlla na ko wootewaat yeneen téeméeri am ci ànd koog noonu. Mbacke Kajoor googu yaa ngi ko doon cof de am na la ci waroon baaxe de. waaw Mbacke Kajoor moom léeg-léeg dama ciy dugg ba ci bund sax ba ci biir du ma xam fu may war a génne. Mhm. ndax xër gu ma ci xër ndeysaan ak lu ma ko bëggee ak itam noo xam ne nii mhm. nekk na ko ci saab xol waaye day dëkk boo xam ne mhm. ci dëkki sëriñ Touba yu mag yi ci la bokk barabu ijaaba waaw képp koo xam ne daal ni ma la ko waxee léegi fajuk mhm. aajo nga bëgg moo xam kuy liggéey ba wutu bëgg bëgg bëgg place koo xam ne bëgg nga dara wala ngay jàng sam xel nëx ak loo nga xam ne daal yaa ngi ko sax nga falu fajuk aajo la ñëwoon dem Mbàkke Kajoor ba mu weer delsi doon ban dajee nga xool fajug aajo. Mhm. moom foofu la nekk. kon foofu la maam Cheikh Rafal. foofu la maam Cheikh Rafal Baabul Muridiin jébbaloo Cheikh Ahmad Bamba. muy Mbàkke Kajoor go ci weeru koor. gi gisu Bamba gaa nga fa boo fa demee noo ngi nuyu xalif général de Baye Fall. Mhm. boo fa demee ba dem fa nga xam ne Serigne Touba kenn du moom. am na gi gisu Baye Fall. waaw ma nga fa waaye bañ nee gi gis ga waaye xam nga léegi jamono ni mel. Mhm. ya koy wër. ci yu fa mori yi def bàyyi faal yi def ko fi mhm. dana tax booba tuul da nga wër gi gisu ba son door ca ak si waaye booy si daal ñu ne la gi gisu bàmba fii la waaye nag lépp luy lu baax rek wala loo xam ne nekk na fu mën a ne ci monde bi rek taalibe yaa ngi koy yenu di ko indi mbàkke ka yor di ko fa def loolu ndax ñaanu Cheikh Mamadou Lamine Bara gu nangu kon daal loolu daal eh, ci Mbàkke Kajoor mhm. ba tey mën nañ ko ci defaat tey boo doon def appel jëmale ko ci mbokki taalibe yi ñu gën a xam Mbàkke Kajoor mën a teew ci màggal gi gan kàddu lay doon bi may def daal mooy Louga ga ma dëkk mhm. dëkk Njóobeenu Ngunta mhm. nekk ci sama commune tàmbalee ca maire ba mhm. wala boo dikkee ba ci biir dëkk bi nga wax gouverneur bi mhm. barki démb rek ci CRD bi ñoo ngi fi nekk soxna su baax la kero xam naa sax bëggoon nañ jël kàddu waaye dafa mujj satiré ba gannaaw moom ci kàddoom dégg nañ mu ne kero la njëkk a def maanaam lii ci jëmale ko ci Cheikh di Lamine moo tax ma xam ne moom ci ñi am fajug aajo ci lay bokk moom soxna soosu muy soxna soosu nekk gouverneur bi wax moo fa nekkoon waaye moom mii moo ko remplace noo ngi koy nuyu moom it di ñaan yàlla ndomba googu mu jël sa borom yàlla barkeel ko mhm. di nuyu préfet su préfet mhm. di nuyu it sama maire di euh, euh, Moubarak mhm. ak bambaloo ñoom ña fa nekk ak xale yooyu yëpp ca commune ba ñoo ngi leen di nuyu di nuyu Serigne Cheikh Kama nga xam ne moo fa nekk nga xam ne luy taaral ca dëkk ba ca jumaa ja moo ko fay def ak njabootam yëpp waaye Mbàkke Kajoor daal maa ngi soññ région di Louga bëgg képp koo xam ne bëgg nga sa aajo faju daal wala nga umpale dara ci Mbàkke Kajoor fexeel daal gannaaw màggal gi la douze la nga fexe faa yendu euh, mm-hmm. fanaan si mm-hmm. yendoog noonu fanaanu noonu ba ëllëg nga xam fan mooy Mbàkke Kajoor mm-hmm. ndax daal ay xéewale nga fa yoo xam ne loolu Dakar itam ñoo ngi koy soññe ndax yàlla dogal na fi la nekkoon am fi président daayira yi buñ dundee fii nga xam ne ci marché bi la nga xam ne doon naa fa yëngutu ci jamono noo ngi nuyu suñ mag ju fa nekk sëriñ Jëmb Faam mm-hmm. sëriñ Moustapha Diang mm-hmm. sëriñ Alaaji Njaay ñoom ñi nga xam ne ci seex su baax si jokk ci wàcc sëriñ Babacar Cergaan ci la bokk mm-hmm. sama xarit Moustapha Seen Abdoulahi Diop Moussa Diang délégué bu baax boobu ak mboolem soxna yu baax ya fa nekk soxna ñu jëmbat mbay sama jigéen ak mboolem ña nekk ca marché ba rek dafa yëngutu boo ne amee Tijaan Sam lu xew njóobeen ñu taal seen oto dikk euh, ñooñ daal noo ngi leen di éviter ñoom ñëpp ci ilaa Mbàkke Kajoor ci macha allah euh, kon su ko defee rek mbokk yi ubbi nañu téléphone bi ci 88 628 05 05 88 628 05 05 ñu ngi daal di ànd ak spécial Mbacke Kajoor ci rajo Afia Dakar 93 point 0 incha allah ñu daal di rek ubbi téléphone bi ci 88 628 05 05 incha allah ngir mbokk yi xam ne ñu ñooy teewlu te bëgg a dugg mën nañ jaare rek ci 88 628 05 05 ma fàttali leen tey. ñi dalal ki nga xam ne mooy Serigne Abdoul Aziz Diop euh, bi nga xam ne itam euh, tey nag ñu ràññee ko mu nag euh, ci njaboot ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Mbacke Diop nekk foofee ca fa nga xam ne mooy ca fi nga xam ne mooy Louga quartier Ngunta tey moom na yi dalal kon su ko defee incha allah mën ngeen a wéy di jokkoo ak moom ci 88 628 05 05 ubbi nañu téléphone bi mbokk yi mën a jokkoo ak Abdoul Aziz Diop ngir wàccaayu màggalu ko daa màggalu ko Mbacke Kajoor mu mel ni kii sëñ Abdou. Euh, sëñ Abdou euh, mu mel ni que yaa ngi en direct <laughs> ci télé bi ak rajo bi nga ñu bàyyi ci tuuti xel euh, sëñ Abdou mu mel ni que itam bëggoon nañu xam màggal koo googu itam biñ ko dalee def ak léegi tey jii mu nekk loo xam ne ràññee nañu ne ab mbooloo mu takkoo takku ñu ngi ci wàccaay gi tey lan moo fay jafeñ-jafeñ ca dëkk boobee. waaw jafeñ-jafeñ moom ndax dama la dégg léegi ngeen def ngeen CRD. waaw kon war nañu moo mën a xam lan mooy jafe-jafe yi. waaw CRD bi. bi ñu ko defee Louga njëkk nañoo def benn ca Mbàkke Kajoor ñu def itam appel bi ci guy mbind ci kanamu Cheikh Moustapha ñu wëlbatiku itam def CRD bi ci gouvernance su Louga bañ fa dikkee itam gouverneur préfet su préfet ak mboolem ñi chef de farié nekkoon chef de service yi muy santé di élevage gendarmerie mboolem ñu fa nekkoon ñoom ñëpp la nga xam ne mbakk Kajoor day dañ koy soxla waxtaane nañ ko ak ñoom ca nañ ca daan defee ba sëriñ bi nga xam ne moo ko coordonné woon tam di portable bi sëriñ Cheikh Coro moom sëriñ Basiir moom sëñ Baara moom sëñ Touba léegi waxtaan na ca ak ñoom ñu wax ca wax joo xam ne nii ju rafet la ci di ko jëf nag ndax lépp loo xam ne nii xawoon naa manqué daa wax naxas wax nañ ne fas nañ ko yéenee complété ba mu gën a rafet gi jàlloon loolu ñoo ñëpp waxtaan nañ ko fa bu dee ci wàllu daa daaira yi man Abdoul Aziz bu may woote ci tund njaambur rek toujours damay ci jéetal sama mag nga xam ne kenn ku nekk xam ne ko ci njaambur muy Alaaji ma jey Fall mi nga xam ne mooy président transporteur yi nekk itam daa ir Sëriñ Baara Mbàkke bu mag boobu nga xam ne mooy fédération bi mu nekk ci kanamam ca toujours du ne dem leen day wax kaay leen nu dem toujours foo gisa muy woote rek ma nga ca kanam di jàmbaari Sëriñ Baara kenn ku nekk xam ko ci njabootu Cheikh xaarim Awa Ba sama mag ju baax jooju maa ngi koy ci soññaat moom it mu soññ mbooloom ndax dafay jàmbaari lislaam yoo xam ne nun day suñ soñoon dana fi gën a yàggaat lool ci wér ndax jàmbaar la di soññ itam nag mboolem soxna ya nga xam ne ñoo nekk njóobeenu ngunta tàmbalee ca ka nga xam ne moo nekk ca bopp ba di soxna Fati sekk ak soxna sukkay baaw mi nekk Louga soxna awa fay mi nga xam ne moo féete ca waañ wa ak mbooleem ñu mu koy bokkal waaye itam di soññ daayira bi muy seex sukkay ak mboolem ña nga xam ne koy àndal daam siise ñoom ca Touba ak mbooleem daal ñi nga xam ne ñoo àndanteeg ñoom di dem Mbàkke Kajoor cay bëgg lu baax ca di fa nekk xam nañ dal ba xam nañ lañ daan def fañ yemoon daal nañ ko fa dolli mu gën a baax lool gën a nekk mbég gën a nekk mbégtam sëñ Moustapha nun daal sëñ bi lii moonu fi indi tey mhm. ngir bëgg rek doonte Mbàkke Kajoor feeñ na itam nu gën ci feeñalaat suñu man-man fu ñu toll ba ku xamul woon Mbàkke yow la mu faa ñëw daal wone la nga dikk teew si ci bis dinaa dëkkaat léegi Fall Ndiaga mënta ñàkk nga sànni ci kàddu ndax xam nga ne itam euh, Mbàkke Kajoor bu ñu koy wax macha allah yow nga miin ko euh, itam euh, tey yaay nga yaay yaay Fall nga fa sax macha allah ndax sa taxawaay bu am solo tey màggal gi lañ ci mën a baaxee loo xam ne tey jii itam jot na askanu Sénégal xam lan mooy Mbacke lan mooy màggalu Mbacke Kajoor sama yaay. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar leen jox seen wàccuwaay du nuyu sama directrice Adja Penda Ngaan Sugu nuyu personnel am bu baax biñ fi fekk yëpp ak dal beeg ak yiir beeg yëpp ñu ngi ñu ngi leen siy gërëm ah di soññe rek Mbacke Kajoor. Mbacke Kajoor nekk dëkk bu neex macha allah boo xamante ne euh, sëñ Baara lañ fay màggal at bu nekk mu nekk Mbacke màggal goo xamante ne ku fa teg sa tànk ren bu déwénee yaay soññee man nag maa ngi soññee képp ku ma am mu fekk ma Mbacke Kajoor maa ngi soññ suñu waa daayira bi boo xamante ne. Cheikh Ayu Faye moo ko jiite mhm. fii ci Grand Yoff di soññ tamit sama doomu ndey di Aminata Dieye ñu mhm. nekk euh, Yoff di soññ tamit sama xarit sama doomu ndey Adja Ndey Diallo di soññ waa HLM suñu waa kër di soññ bàjjanu gox yi di soññ sama waa hôpital bi hôpital Grand Yoff bi nga xamante ne fa laa yëngoo di soññ ñëpp daal ñu xam ne ñun loolu rek foofu rek lañ am suñu wasila bi nga xamante ne moom la yàlla booleel muy sëñ Abdou Aziz Diop foofu la jébbalu sëñ ab eh, eh, sëñ Baara nekk sëriñam nga xamante ne ñoo woote bés bi ma ko ci gunge at bu jot may woo sama ànd jàmm yëpp képp ko ma am rek woo naa si màggal gi le 12 décembre nga fekk ma fa bu soobee yàlla incha allah. mu mel ni gis sa mbokk jigéen ñi buggoon naa nga soñu leen. waaw comme ni ma ko waxee rek maa ngi soññi suñu waa daayira daayira bu Grand Yoff boo xamante ne Cheikha Aysatu Faye moo ko jiite maa ngi soññ waa HLM Adja Lobe sàll ak waa këram maa ngi soññ sama mbokk ndar yi fi nga xamante ne foofu laa soqeekoo sama bàjjan yeeg sama cousin yeeg sama cousine yëpp maa ngi leen di woo di woo waa Grand Yoff yëpp ñu ñëw fekk suñu màggal googu nga xamante ne moom rek lañu am wax dëgg yàlla bu ñu sañoon màggal sëñ baara boobu ñépp fekk ñu ak képp ku ñu añ am maa ngi soññ tamit sama xarit bi comme ni ma ko waxee Aminata Jéey bi nekk yoof di soññ waa hôpitalu Grand yoof bi yëpp ñëpp di wax ñëpp daal dëkkandoo xarit àndandoo ñëpp mm-hmm. soññ nañ leen daal ci màggalu Mbàkke Kajoor ñu waaj ko le 12 décembre incha allah fekk suñu foofu macha allah mm-hmm. euh, <laughs> <laughs> am na solo waa kay jërëjëf mënta ñàkk am na solo waa kay sang bi ah Mbàkke Kajoor ngi noonu muy dëkkam ngëneel dëkk boo xam ne ci la maam Cheikh Rafal njëkk itam euh, gisee ku baax ki loolu doy na kiimaan waaye dëkk la boo xam ne itam Cheikh Mohamed Lamine Baara ibnu Cheikhul Xadim dëkk fa ba tey ñu wax màggalu Mbàkke Kajoor kon dëkk boobee ndam ma nga fa mbégte ma nga fa yokkute ma nga fa waaye defaru ca euh, sang bi Cheikh Abdoul Aziz bismillah jërëjëf ñoo ngi santaat bu baax euh, jëmm ji doon wax nag soxna si li mu wax rek loolu la ndax moom fépp foo gis góor gu baax rek danga gis jigéen ju baax ca wet ga noonu mu ko waxee moom ne moom la ma yàlla boole lu dëggu la ndax màggalu Mbàkke Kajoor gi bu ñëwee dafa wax ci làmmiñam ne moom way juróom bu góor bi muy dund yu bari yi xew ak nit ñi xewal ko ca defe ne dara la da ko ko teeroon a aaya muy lu mel ne xew yi ca soxna yi bëgg ko lool ma ay ndayale la xaw ma ay màggale xaw ma yooyu moom ba fiintool day wax ne moom bu ko kenn kenn defloo ndax papaam daf ko ko teeroon tere mu wax ci làmmiñam nag ne bis ba mu jógee daaw ca màggalu Mbàkke Kajoor ak la ko jiitu ba ba muy dellusiwaat lu mu am ci bis sëñ baara boobu la koy def loolu itam nag dafa rafet nga seereel ko nit ñi ba nit ñi nga xam ne bëgg nañ lu baax ca xëy na ma wanuñu leen aw yoon ñu xam ne lépp lu waay di jëf léegi ci jëfoo ko ci yoonu Seexul Xaddim boo defee ne dara lay du dara ndax bu amee tàmbali itam du am ak mujj kon nag na nit ñi xam loolu bu ko defee nag sëriñ Baara Mbàkke moom ku ciy wax mooy waxtaane alquran mooy waxtaane xasida ndax nag Cheikh Ahmad Bamba la kon bis boobu niñ ko waxe woon rek liñ fi santaane daal mooy li seeni kilif li ñu kilifa yi sant ci bëggu muy jàng alquran di jàng xasida di def ay salaatu ala nabi nekk ci lu neex sunu borom ku fa yóbbu nit yi nanga xam ne lii moo fa nekk ci lii lañ fa woote woote fa lenn loo xam ne yëfi adduna rekk la loo xam ne ni sëriñ Tuubaa santaane ko nun de woowu nu kenn ku fay def loolu ca képp koo xam ne loolu sax nga fa sa yéene jëfandikoo buñ la woo sax bëggunu nga ñëw fa kon nag nun lu baax lañ fa woote mm-hmm. kon nag alxuraan jooju mm-hmm. tàmbali nañ ko ñun bu yàgg ca daara ja ca njóobeenu ngunta mm-hmm. di ñaan nag fépp xam ne daara nekk na boo dikkee ba njaambur nag boo nee njaambar ñëpp danañ dem ci kokki dem ci kokki ca ña fa nekk ak ñun benn lañ ñoom xam nañ ñun xam nañ mhm. noo ngi ñaan daal fépp fu daara nekk mhm. nga wàccee ay kaamil mhm. def ko addee Cheikh Mouhamadou Lamine tàmbalee ko ci njóobeenu ngunte ga ma nekk nag daara ya fa nekk xam nañ nu xam nañ leen ñuy ay nit yu baax seeni baay ak seeni maam nekkoon ci loolu jàng alquran ba xam ko di ko jàngale ca wax nañ ne ki gën mhm. ci nit ñi mooy ki jàng alquran ba noppi di ko jàngale ca dëkk boobu di njóobeenu ngunte nag ci loolu dong lañ leen xame mhm. di bay di dunde dunde seenu ñaq mhm. ak nekk ci li fa mag ñi nekkoon nun daal ci loolu lan fas yéenee nekk ba ba sunu borom di dogal sunu dund jeex ci àdduna waaw kon macha allah jërëjëf sëñ Abdul Aziz jërëjëf sama yaay macha allah kàddu yi am na solo te rafet na Euh, màggalu Mbàkke Kajoor la moo mel ni ki dëgg mu nañ ko incha allah buñ ci yàlla yóbboo ma ngi war a am le douze. Euh, déglu ngeen sànq kilifa ya la nga xam ne moom lañ jot a wax euh, xalifa bi mooy kan. sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Sidi Mokhtar. sëñ Moustapha Mbacke ibnu sëñ Sidi Mokhtar. waaw mooy xalifa bi. jamono ji mooy xalifa ba. mooy xalifa bi mooy wootee lu lu nu wax ci ndigalam lañ ko wax. ndeysaan fu nu nekk moom lañ fa nekk. ca itam ñaanu nu yàlla. mu séennu ci dara lu dul noonu ndeysaan ndeysaan fas nañu yéene fu mu déggee suñu kàddu wala mu gis suñu mu gis suñu jëf rek mm-hmm. lu ànd ak ngërëmam lay doon moo tax noo ngi koy ñaanal daal saa borom yàlla gën ko fee bàyyi mm-hmm. ak i bunti kër sëriñ Baara Mbàkke yépp nag mm-hmm. ñoom ñépp laa xam seeni xalifa waaye buñ ci tuddee ki ci moom rëkk rek mu yóbbaale géew ñu ci des mooy sëriñ Lamine Mbàkke moom sëriñ Basiiru Xujja borom Daaru Salaam Kajoor. ndeysaan ca rakkam nag sëriñ Cheikh Coro. ndeysaan moom la sëñ Sidi Muxtaar wóolu woon. bi mu fi bàyyi ko itam sëñ Sidi Muxtaar sëñ Moustapha Mbacke Sidi Muxtaar wéyee loolu. ndax bépp samp boo xam ne Cheikh Mouhamed Sidi Muxtaar sampoon na ko rek laaj bu ma la laaj. ngir bëgg a xam ak mbokk yi déglu te xamuñu mën a xam. Mhm. kon sëñ Sidi Muxtaar Mbacke Kajoor googee itam la nekkoon. sëñ Sidi Muxtaar. Mhm. Mbacke Kajoor da doon dëkku Cheikh Mouhamadou Lamine mhm. bi mu nekkee dëkku Cheikh Mouhamadou Lamine nag képp koo xam ne yaa wutu ci xilaafa gi mhm. yow foofa rek lañ lay mën a adressé mhm. waaye moom dafa sañcoon ay dëkki boppam mhm. nga dem kër ngànn ngànn waaw waaw dem kër ngànn waaw ñu bari bare bari bari miin nañ ko fa waaw nga dem ndindi buggul Cheikh Sidil Muxtaar ñu bare bari miin nañ ko fa ndeysaan wala nga dem tawféex Cheikh Sidil Muxtaar ñu bare bari miin nañ ko fa ba ci yeneen dëkkaat yum sañc waaye nag buñ ne xalifa sëñ baara laal mhm. da ngay tudd Mbàkke Kajoor mhm. mbaa nga tudd guy mbind lii moo waraloon lool ndax sëriñ Abdul Aziz Baara ni ñu ma duppee Cheikh Sidi Muxtaar wóotu ko mhm. wóotu gu rafet ñoom loolu lañ doon doxal nun ñii di taalibe itam nag nun fu njabootug sëñ Baara xool foofa lan xool dégluwunu keneen xoolunu keneen ndax xam naa ne liñ ñuy wax dana doy sëkk ci dana matale sëkk moo tax daal sëñ Cheikh Moustapha Mbacke Sidi Muxtaar mhm. yàlla na saa boroom yàlla gën ko fee dëgëral ba naal yim naal ci dëkk dëkku maamam bi sa borom yàlla def mu àggale ko kon daal euh, ñi ngi woo ñëpp ci màggal gi nan daan dëkkee ak nañu ko daan defee waaye ñi nga xam ne mosuñoo dem nan dem mos xool wax naa ko ca appel ba dégg naa la <laughs> ca CRD ba ca gouvernance ah. ca gouverneur ba soxna su baax su tedd so laa tàmbalee dama ne ko li tàmbalee ci yow tàmbalee sëñ Cheikh Thioro mi ak ñii fi nekk ña kenn ku nekk ci noonu mobiliser dix personnes yu musul dem Mbàkke Kajoor ci dix personnes yi nag mu wóor ne saytu ne ba xam ne ñii nag jaamukati yàlla lañ ndax jaamu yàlla lañ fay def mhm. kon kay nii nga ko waxee yow itam sañ Bac koo xam wala koo gis rek mhm. ca bëgg mu yokk rek wala ay aajoom fajoo rek na fexe ba ñëw Mbàkke Kajoor la duus buñ fi bokkee dajawaat mhm. ñoom ñoo may wër bëgg ma yóbbuwaale waaye ñoom duñ ci xalaat leneen ndax man xam naa la njëriñ ci rax njëriñ la cay rax ci biir lu waay bëgg jëm faju daal ñëwal Mbàkke Kajoor yéeme ne soxna si noo jàngatee loolu noo jàngatee loolu xanaa yéeme rek uh-huh. li mu wax moom kenn mënu see taj dara ba nga egsi fa rek uh-huh. man moom wax dëgg yàlla depuis ma fa dem premier année ma ma mës fa dem uh-huh. dama ne màggal yëpp neex na màggal Tuubaa neex na waaye man màggal Mbàkke Kajoor lu tax mu gën maa neex dañuy fanaanee tagg sang bi ak ku tedd gi mhm. ba asamaan set mhm. ba bu ñu paree ku nekk rek mhm. da ngay daal di solaat sa yére dugg sa oto dem sa yoon màggal gu neex la goo xamante ne lu yàlla bëgg ak yonent bu bëgg ak sëñ tuubaa bëgg ak sëñ Baara rek lañ fay doxal looloo tax nag dëkk boobu moom wax dëgg yàlla neex ma lool nekk sama biir xol macha allah ba nga xam ne boo fa jógee ren dama koy préparé lu ma am dama koy denc ba at bi dellu si waat ngir waajal ma def ko ci màggal gi ci àddiyee sëñ baara waaw yaakaar naa loolu ngëneel la wax nga ko sànq ma say na illaa bi ma alim na moom nga xoon sànq sëñ Abdul Asis mm-hmm. mu mel ni ki wax ju amul seede baaxut kilifa gu baax moo ko daan wax ci réew mi tey itam boo xoolee sëriñ Tuubaa Seex Xaadim fépp fu mu jaar yokkute la fépp fu mu jaar ngëneel la waaye fépp sëriñ fépp foo xam ne sëriñ tubaa jaar na fa yokkute la macha allah waaye itam nga xool seriñ Touba Seex Xadim nga xool njabootam tey jile nga xool kiimaan ya nga xam ne moo nekkoon Serigne Baara Serigne Baara ibnu Seex nga xool kiimaan yi nga xam ne moom moo ci nekkoon ca moom kon tey buñ ne Sëñ Baara Mbàkke ibnu ñëw na ci fa nga ne mooy Mbàkke ñu nekk ci wàccaay yu Mbàkke Kajoor màggul Mbàkke Kajoor kon jot na tey kuy jullit takk ndigam dem mm-hmm. xam na sëñ baarakat ñi ko xamoon ñëpp xam na ne nitu yàlla kaamilal la te itam doon na saayir si waaye doon na baatin ba ndax yàlla nangul na ko yàlla may na ko sëñ Abdou noo jàngatee loolu waaw ni ma ko jàngatee mooy ni nga ko waxee nitu yàlla mënta wees Cheikh Mouhamadou Lamine ndeysaan ndax nag boo dikkee ba Tuubaa boo doon tudd tey ci njabootu sëñ Tuubaa gi fépp foo tudde Seex Muhammadu Lamin Baara ñi bokk ak moom sëñ Tuubaa ñoom xam nañ kan mooy sëñ Baara ndax diggam ak magam ju baax ja muy Seex Mustapha ndax ñoo bokk soxna Aminta bokk Xaadimu Rasuul mag ñi nett la ne mas naa dikk fekk sëñ baa sëñ Mustapha mu jóg bàyyi ko buy mbind ñëw fekk Seex Mustapha baxa bu rafet nee na mu ne ko Cheikh Moustapha sa mbubb yi de rafet na waaye jox ma ko waaye jox ma ko mbaamu tàkk ca kaw ca doon kafantoog moom noonu rek mm. diggante mag joo déggool jox ma ko mbaamu tàkk kaw waaye Cheikh Moustapha daal dugg ci biir génn summi ko daal di koy dikk solo na ko am baara am koo xam ne loo wax yàlla def ko bul waxantu waaw daal di summi mbu mu yoroon daal di ko joxoon te rakkam la ñu bokk soxna Aminta Lo bokk Xaadimu Rasuul mm. ahlu Mbàkke itam xam nañ kay mooy Cheikh Mouhamadou Lamine boo dikkee tuuba danañ ne Daarul Xuddoos ndax fa la nag lépp tàmbalee Cheikh Moustapha waaye danañ ne la guy mbind ne la Minan mooy fi Cheikh Munta Cheikh Muntaxa nekk te yàlla na fi yàgg te wér Daarul Minan wax la xayra Cheikh Modou nga dem ka Cheikh Abdoul Ahad dugg kër Cheikh Sonyibu Cheikh Abdul Xaari imaam yi imaam yi Cheikh Mouhamadul Mourtala jàmbaari lislaam yi waaye yépp ci njaboot Cheikh Mouhamadul Lamine mhm. Mbàkke ñoom xam nañ kan mooy sëñ Baara mhm. moo tax daal Mbàkke Kajoor daal nun la ñuy woote ndeysaan bañ kenn manqué li tax nuy woote dañoo bëgg rek aw yow ak bëgg nit ñi dolli ko rek ndeysaan am solo moo tax boo demee Louga njóobeenu ngunte ga ma bàyyi dëkk uh-huh. bàyyi ko uh-huh. oto ya daañu fa bàyyi ko daañu bàyyi ko kër sëriñ baara ci biir Louga ñoo ngi nuyu doomi sëñ Abdoul Aziz baara mu baax ma fa ne mu sëñ Xaadim Mbàkke yal na yàlla guddal fanam amiin amiin di nuyu mboolem njabootu seexul xaddim gi nekk Louga mm-hmm. sëriñ Mouhamadan Mourtada di nuyu sëriñ Abdoulahi Fall jàmbaari maam Cheikh Ibra Fall jooju di nuyu mboolem njabootu maam Alaaji Malick Si ga nga xam ne ñoo fa nekk njabootu Cheikh Basi Ceerno Basiru Taal magi lislaam yu baax yooyu waaye di nuyu suñu mbokki bopp nag njabootu maam Adi Diop ndeysaan sunu booru bàjjante yi nekk ca bopp ba ñu di ko wax seexu waaye mu génn rakkam papa Diop téyel ko ko waaye nag Aliou Diop suñu rakk di coordinateur bi mhm. di ko doxal nam nga a baax ñoom ñoo ñëpp noo ngi leen di éviter ndax nag ngeej ji ak njóobeen benn lañ te ñoom xam nañ ko nun xam nañ ko di nuyoo waa kër ngunta waa njóobeenu belal mhm. waa belal mhm. kër mbay safe ngeej ji jóob yabbutil jóob kër saa kokki jóob-jóob yooyu yëpp ñu ngi bàyyi ko boo ko doon seet bu doon ab bâtiment la daal ñi sant jóob ñu ne njóobeenu ngunta mooy fondement mooy fondement kon nag noo ngi woon ñëpp ci yu woowu dëgg la bëgg ñu dikk fi ndax xéewal gi man damaa bëgg ñépp bokk ak man ab doy si joxuma aw carte bu ma ko kenn wax noo ngi woote daal ci baatu Cheikh Moustapha na ñëpp ñëw fépp ku dikk rek incha allah boo dikkee Louga kër Serigne Baara Mbacke da nga am lu la yóbbu mhm. ba Mbacke Kajoor loolu daal noonu la ko wax di ko wax taalibe yëpp kon daal appel bi mooy na ñëpp dikk na ñëpp dikk tey itam euh, yaakaar naa ne euh, ku dikk doo ko rëcc déedéet waaw waaw si woote bi tey ba mm-hmm. pare xam nga xel day fattu mm-hmm. maa ngi nuyu waa kër sëñ baara yëpp rawatina waa kër sonn xadi baara mm-hmm. nga xamante baara waaw bu sëñ baara bi nga xamante ne ñoom sama séddoo lañ ak doomam ju baax jooju nekk Italie di sama jëwriñ muy Loota Jóob maa ngi koy nuyu ak di ko ziyaar di Baara Jóob ak Paala Jóob ak di ziyaar soxna Ami Mbàkke bu njóobeenu gunta mhm. sëtu sëñ baara bu baax boo sama doom mhm. maa ngi ziyaar tam sama rak ki topp ci man nga xamante ne day jàpp ci màggal gu baax de ko ñaanal yàlla mhm. mu élage li Fall nekk Espagne ñëw bërki démb njaay maa ngi nuyu tamit di ko soññ sama rak bu nekk Mali bugguma faal Adja bugguma faal maa ngi koy soññ di soññ sama rak bu nekk Ita kii France moom tam maa ngi koy soññ suñu waa kër daal wax dëgg yàlla dañ may jàppale si màggal gi lool moo tax mënumaa ñëw ba fii mhm. te mënuma leen a tudd ndeysaan am na tam sama yaay Adja mhm. Lobe Sall moom tam kuy jàpp si bés bi la mhm. ak sama rakk yi nekk ci kër ga yëpp HLM maa di faal ak eh, elaa kii Mansour Fall Badara Fall maa di faal ñoom ñëpp ak seeni soxna Tullaay Fall ak eh, Marie Lum mi nga xam moo nekk ci bopp ba ak sama séddoo ummi sogg ñoom ñëpp dañuy jàpp ci bés bi te dañuy takk seen ndigg tëj seen kër tëj seen néeg ànd ak man ba yëpp seddu ñibb mhm. ñoom ñëpp daal maa ngi leen di woo ndax xel day fattu mhm. waaw di leen ziyaar bu baax nag xam ne luñ si ñàkk ren yàlla na leen ko yàlla fulal amiin mu nekk ay ngëleen yu bari mhm. seen njaboot ak ñëpp ak bépp jullit kon daal na ñëpp waaj ànd ak yow wallaay ànd ak man rek mhm. ak ñu àndandoo suñu jëwriñ Cheikh Ayou fay rek mhm. ci Grand Yoff mhm. ñu àndandoo rek euh, kon Cheikh Ayou fay mooy jëwriñ ji waaw mooy suñu jëwriñu daayira fii ci ci ci Grand Yoff mooy lépp macha allah te moom xam nga ne moom ku yonent bi rek waaw waa l'islam rek ñun moom moom ñun suñu suñu association bi noonu la fu l'islam wootee rek ak bernde rek ak social rek ñun ci loolu lañuy dox waaw man ñooñu mooy ñooy sama référence ñooñu laay àndal ñooñu ñooñu ñooñu si ñoo si yooyu daal laa nekk diine rek waaw diine rek macha allah yal na la yàlla saxal ci amiin yal na la ci allah am na solo euh, imam mu mel ni kon dégg sax soxna si appel bi mu def mm-hmm. yow itam dégg naa la sanq yaa ngi woo waa jàmbur ak waa marché Grand Yoff rawatina euh, sunu kilifa yi fi nekk ñoom sëñ jëmboog faam ak ñooñu macha allah mu nekk loo xam ne lu am solo la mm-hmm. waaye bu ñu waxee màggalu Mbàkke Kajoor xam ne tam lislaam moom moo woote waaye tam buy waxee lislaam xam ne umm islam yëpp la ñu woo mm-hmm. rawatina liggéey bu réy bi nga xam ne tey njabootu Sëriñ Tuubaa Seexul Xadim mm-hmm. liggéey nañ ko ci àddina mm-hmm. kenn dootu waxati liggéey nañ ko ci Sénégal déedéet liggéey nañ ko ci àddina ndax Sëñ Tuubaa moom international la ñëpp ko xam ci biir réew ak bitim réew ndax liggéeyam bu réy yaakaar yàlla xam yàlla nangul yàlla doyloo yàlla waaye nangu dogalab yàlla lii nag ci nangu dogalab yàlla moo ko may Sëriñ Tuubaa Seexul Xadim ci nangu dogalab yàlla moo ko may sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ndax yàlla moo ne xam ma man yàlla lu jiitu nga may jaamu waa soo ma xamulee man yàlla naka nga may jaamoo sëriñ Tuubaa na dafa xam yàlla yaakaar yàlla nangul yàlla doyloo yàlla waaye nangu li nga xam ne mooy dogalab yàlla kon dogalu yàlla boobee Seexul Xadiim xam moo ko may tey ñu dem banaan naan dañuy màggal màggalu Mbàkke Kajoor nangu dogalab yàlla la wax nga ko sànq wax ju am solo joo xam ne dëgg la laaj Cheikh Saliou Mbàkke mi nga xam ne tey àddina nga koy jooy noppeekuñu nga xam ne tey macha allah taxawaayam taxawaay bu am solo moom moo taxaw xalaataat yëf yi wootu woolu sëñ sii di Maxtaar ñu ñëw ñu diisoo ci yëf yi ne nañ ko gën a itam def fii fii la gën a baaxee kon gis-gis boobee sëñ sëñ Saliou Mbàkke gisoon gis-gis la boo xam ne tey moo moo moo waral lii moo jur lii tey jëlee tey tele yi rajo yi foo tourné ci àddina ñu ngi ci wàccaayu màggalug Mbàkke Kajoor kon xalaat ma sëriñ Saliou Mbàkke xalaatoon bii soo ceeg sëñ ci di maxtaar waaye waaye xalaat boobee tey moo réussir tey jile kon lan mooy lan mooy wax jooju mooy firndeel ne lan mooy firndeel wax joojee mooy li nga xam ne mooy yoonu murit yoonu murit yoonu murit digal waaye yoonu murit bu ñaareel bi amul tànk ginnaaw tànk kanam la am Cheikhul Khadim ak njabootam waaye waaye dama ne amuñu tànk ginnaaw tànk kanam lañu am ndax lan seen lépp macha allah dafa barkeel ndax lan mooy nangu gi moo ko waral nangu googee nag euh, mu ngi dooree ci Sëriñ Tubaa xam yàlla yaakaar yàlla nangul yàlla nangul yàlla googee moo jur lii tey jile nga xool itam macha allah taxawaay bu am solo bi nga xam ne tey jile gis naa ne ñi nga xam ne ñoo ŋànk comité organisation bu màggul Mbàkke Kajoor taxaw nañu ko mm-hmm. yaa ngi nii jigee ba Ruga lancé wala wane wala fisal li nga xam ne mooy lu mag Mbàkke Kajoor kon nangu tey jilee moo ko waral loolu noo ko jàggatee sëñ Abdou Aziz xanaa dellu fi ñu jóge mësul fi jóge ndeysaan muy santaat Cheikh Modou Lamine rek mhm. ci fekke gém nu fekke loo waat ñu naan ñi ngi màggalaat bisu Cheikh Modou Lamine ci 2023 bi ndax bari na lool nag ñu ko fekk woon daaw ji fekk wuñ ko ca ñooñu seenu yaafus taxu leen a dem nun ñi fi des di suñu jàmbaar taxu waaye daal Cheikh Mouhamadou Lamine daal mos xam la moo tax man ma woote ñépp ci yéene leen aw yiw bëgg daal képp koo xam ne yaa ngi dégg Mbàkke Kajoor nga dégg ko ci rajo bi walla ci télévision bi wala nga xool sa portable di wutul yéeg yooyu nga xool ko ci xam ko gis ko fexee la dañ kumpa fan mooy Mbàkke Kajoor wala fan lañ woote ba nga ñëw man de wóor na ma ne boo ko defee bu neppee déwén dangay am ñeneen ñooy yóbbaale waat waaye yow ma waxaatuñ la ndax dëkk ba it Cheikh Moustapha yaatal na ko yokk ko noonu ma la ko waxe woon ba tey tubaarkàlla sëti Cheikh Mouhamadou Lamine yi kër goo ca dem rek da ngay yaakaar ne mbooloo mi fii la nekk ngir ñaan gu taalibe yi nga xam ne ñooy seexi Seex Momadou Lamine yi boo ko doon wax rek tàmbali sëñ ñaan Diop sëriñ Seex Ousmane Diop waaw Seex su sant si Amar sëñ Sidi Amar ak mboolem xalifa ya ñoo ngi woo ñëpp góor jigéen mag ndaw ci Mbàkke Kajoor yàlla na yàlla daal def nu dugg ci bismillaahi rahmaani rahim àgg ci alhamdulillahi rabbil alamina ba màggal ko ni ko sëriñ bi bëggee dajale cee ngërëman nun nag lu sëriñ bi gërëm rek la ñuy wër leneen seetuñu ko xooluñu ko loolu daal lan la bëggoon a waxal sëñ bàcc ci jataay bi jërëjëf mbokki xarit yi ci am na beeg safoo beeg Euh, rajo Afia FM Dakar 93 point 0 kaddu gi bàyyi ko fii ci immeuble Enda ci Ndakaaru kon su ko defee incha allah mën ngeen a tàbbi ci jotaay bi ci 88 628 05 05 ñu ngi jaajëfal bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ak seetaan ci internet bi kon ñu jël euh, mbokk mi ci jokko gi 88 628 05 05 Afia Dakar salaamaaleykum euh, rajo Afia salaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum. allo ku baax ki maa ñu ngi lay delloo ziar soxna si jël ko jël ko xam moom. Euh, waaleykum di nuyu soxna Fatou bu baax ak sëñ Diop. ñu ngi lay ziar directrice. <laughs> di déglu macha allah allo. allo waaw ñu ngi lay déglu yow rek déglu bisimilah. waaw maa soxna Fatou jël ko. di leen ziar. ñu fay. di dalal seen jóg bu baax ci mhm. émission bi mhm. di wax ne rek Mbàkke mànkelu Mbàkke Kajoor gi am na solo lool dëgg euh, déglu nañu appel bi mhm. dafa mel ni réseau bi la allo allo soxna Penda waaw sëñ Mansour. ñu ngi lay teewlu bismillah waaw ma ne maa ngi wax ne sëñ Baara daal mu amuñu lu dul moom. dëgg la ndeysaan. di wax ne daal màggal bu jara fonk la comme ni ko Serigne Diop waxee. Mhm, mhm. Euh, waajal bés bi daal am na solo. am na solo kon ñëpp waaj dem Mbacke Kajoor. incha allah. ñoo ngi ziar soxna Fatou bu baax. ñu ngi koy delloo. <laughs> waa kay jërë ngeen jëf waay ñu teewlu émission bi. incha la dëgg la di kontaan si yéen bu baax. jërëjëf waay. jërëjëf ajaratu macha allah ñu gërëm ko sant ko ñaanal ko guddik jàmm kon ba tey 88 628 05 05 88 628 05 05 xam naa léegi rek trésorier bi mooy xaw a sant Sall wala Ba waaye bu ñu insté rek incha allah rabi daa ñu dugg. Euh, kon su ko defee rek ñu ngi leen di xaar spécial wàccaayu màggalug euh, Mbàkke Kajoor. kon su ko defee incha allah ñu ngi leen di xaar ci 88 628 05 05 yaa ngi nekkoon ci point bu am solo. boo xam ne bëgg moon sax ñu génn ko muy màggalu Mbàkke Kajoor mm-hmm. rawatina liggéey bu rëy bi nga xam ne moom moo fa nekk waaye wax nañu waxtaan nañ sànq ma yow ci wàllu ndigal ndigal moo ni demee moo waral lii tey jii bu ñu waxee Mbàkke Kajoor tey jile foo jaar ci réew mi bëri na ñoo xam ne tam ñu ngi ci wàccaayu li nga xam mooy màggalu Mbàkke Mbàkke Kajoor googee soxna faatu Fall mii sànq mu wax ci wax ju am solo mm-hmm. nee na ku mos ren bu déwénee nga wàcc. Mm. ah yaa ko wax de. maa ko wax <laughs> maa ko de. Euh, sëñ euh, sëñ Aziz kon daal mooy ñam xam. Mm-hmm. ñam xam. ah ñam xam. wa yaa wax yaa ko dëggal. waaw maa ko xam ne yaa ko dëgg. waaw foo xam ne daal dafa am loo xam ne moom jërul publicité. ayca muy laal te mooy Mbacke Kajoor. Mbacke Kajoor. waaw nañ nit ñi ñëw rek. te it wax dëgg yàlla mhm. ni ma ko waxee luy am lépp am na fa ndax ñi nga xam ne ni ñoom la sëriñ bi jox ndigal li teg ko seen loxo ñu di ko coordonné muy noonu ma la ko xam sëriñ Cheikh Thioro bu dee ci liggéey bi man mooy sama jëwriñ bu dee ci liggéeyu Mbàkke Kajoor mhm. mooy sama jëwriñ ah, ndax bu dee appel yi mhm. bu dee CRD yi fu ma mën a nekk bu dee maa ngi Sénégal dina woote ja fu mu mën a nekk bu bu bu ma ko déggee bu soobee yàlla nent bi bu ma dara jot dinaa ko teewe ndeysaan muy jëmm joo xam ne it wax dëgg dafa yaatal nag ndeysaan mhm. ndax nag mhm. ñaar bu fekkee ñu ngi wër ak garab fekkewul départ ba doo xam ku jiitu kan moo jiitu mhm. waaye sëñ Cheikh ñun dañ ko xam bu yàgg ba jàngi jotee dafa jàngi woon sëñ Cheikh Coro Mm-hmm. moom sëñ Basiiru ndeysaan nekkoon ci école sëñ Mouhamadul Mourtala yi te mm-hmm. itam lu ñëpp jàng da ko jàng waaye daa mujjoon mu dikk nag waaf mm-hmm. ci kanamu Cheikh Sidi Muxtaar ndeysaan ndeysaan ndeysaan nekk ab taalibeem ndeysaan yu bari xew nag yoo xam ne du neex a wax ci rajo waaye xam nañ ko tënkër rek waaye ah. jàmbaar dëgg nga ko mu muñ rek mhm. ci damay dégg wolof yi ne ku muñ da nga muñ mhm. moom moo ko dal ku muñ muñ ku <laughs> dëgg la ndax yàgg na fa wallaay laasim bi loolu àggee itam mhm. Cheikh Moustapha mi nga xam ne xëccoowul ak kenn dara li ma la waxoon rek moom lépp lu Cheikh Sidi Muxtaar sampoon rek da koy suuxat di ko taay bi gërëm waaye sempiwul dara sosul dara itam nag muy sëñ Moustapha day sof nag waaye sosul day sof Sidi Muxtaar nekkoon rek day sof waaye sosul waaw dëgg la moo tax bunti kër Cheikh Mouhamadou Lamine di ay rakkam mhm. kenn ku ci nekk la nga am da koo bàyyeek yow mhm. ba noppi moom li ko yàlla wërsëgal nag mu bokk ak yow kooku du ngeen xuloo wallaay la si kooku neex maa ji bokk wax mhm. naa la ci njëlbéen la nit bu ñu ne laa nay nga topp di ko ñaan naan ma may maa jox ma mhm. yaa ko tooñ ku nay da koy da ngay fexe loo am yow jox ko ca moom lu mu am nga bàyyi ko nga bakk ak moom wala yaa déggoo la baat laa la wax dëgg la sëñ Moustapha nag lay doxe mhm. nun ñii nga xam ne danoo féete ci moom lim saf ko ma ca ko xam de la ko ko ñama xam waaw waaye sëñ <laughs> Moustapha yàlla na fi yàgg noo ngi daal bëgg daal <laughs> uh-huh. fi may tàmbali rek lay daaneel muy woote Mbàkke Kajoor daaneel na daal lu mën a xew daaneel gi teel na daaneel gi maanaam mooy <laughs> woote Mbàkke Kajoor ak nit ñi ñëw mhm. ku dikk daal ba dugg Mbàkke Kajoor danga xam ne daal Cheikh Mouhamadou Lamine léegi mu ab liggéeyam ndeysaan ndax doom yi mu fi bàyyi woon mhm. ndax tey ji boo xoolee buntu kër yooyu ma wax ñii sët yi mhm. ñooy mag ña tey sët ya waaw ñooy mag ña ndeysaan ndax benn doomu sëñ baara bu góor tey taxawul ci kaw suuf kon ay sëtama fi toog kon ñoom ñooy mag ñi ca boo demee ca seex it loolaa fa nekk waaye nun daal li nu xam mhm. ki war jiitu jiitu ko ca war a topp topp ci noonu la ñuy doxee seex Moustapha Karim moomu daal mhm. man lu wax laa wax lu waxul waxuma ko su ma yàlla dimbalee itam ba ma yàlla defal mu fekke ko ba déparé foofu de njaambur googee mhm. foofee mu ma daggal ne ma dee fi sant Cheikh Mouhamadou Lamine ku fa dikk da nga xam ne accident ca la duus ca la duus ja ca Mbàkke Kajoor lu nu am Mm-hmm. daanu ko fa yóbbu ku nu xam ni nit ku baax nga daanu la fa indi képp kuy tagg xasida Cheikh Ahmad Bamba yi mm-hmm. wala nga ma yor jukkéb alquran di jàng mm-hmm. woo la ci màkkan moomu fa Cheikh Moustapha jox ndax moom loolu la bëgg ndax Cheikhul Khadim yooyu la woote loolu dong la woote Serigne Touba Serigne Touba ah. euh, Cheikhul Khadim yal na yàlla fayal ñu ko moom ñaar rek la woote li Bamba ji di yaatu yaatu yaatu yaatu ak lim nekk jëwriñu Seydina Muhammad lépp lépp ñaar rek la Serigne Touba woote xam nga ñaar yooyu mooy kitaabul illaahi hadiisu rusuli mooy li yàlla wax ak li Seydina Muhammad wax ndax Cheikhul Xadim dafa jël alquran yaa kitaabal karimu antal habibi wa xalili ngir bëgg gi bëgg alquranul karim waaye itam Cheikhul Xadim kon alquran bu ñu ko waxee xel jëm ci yàlla ndax kat waxi yàlla moo ne ci alquranul karim kon kay sëriñ tubaa jël na léppam jox ko sunu borom subhanahu wa taala waaye jeex tàkk gi nga xam ne sunu maam wala sama maam Serigne Touba Cheikhul jeex na ko ci rasulullahi moo ko may garaatub xaadimu rasulullahi damay lay addina addina wën ngër këpp kan moo fi xaadimu rasulullahi ku dul Serigne Touba waaw ku dul Serigne Touba kon nangu ga moo ko waral kon li nga wax nii ngir firndeel ko mooy mooy li nga xam ne mooy li Serigne Touba woote alquranul karim te xasida Serigne Touba yëpp soo ko xoolee boo ko gëstoo xool ko ñaar rek la ci nekk mooy yàlla ak yërënt bi kon mooy mooy fekk si xam ne moom nga bëgg a wax ci wàccaayu màggalu Mbàkke Kajoor googee ñaar rek lañ fa woote mooy li yàlla wax mu jàng alquranul karim ak xasida sëriñ bu mag bi di sëriñ Tuubaa Seex Xaadim bismillah sëriñ Abdou Aziz li nga ko waxee noonu rek la li nga wax lañ fa woote woote wuñ fa leneen <coughs> xéewal yi nag yaatu na ndeysaan dëgg la ba foo dugg rek da ngay defee ne foofa la waaye liñ fa woote daal mooy li sëriñ bi bëgg mhm. muy li neex ci neex yàlla ak yonent bi ca loolu nag génnul baat boobu nga wax mhm. kon nag ku am leneen wala nga xam feneen mhm. nun lii leen woote Mbàkke sëñ bi lii la woote bëgg ñëpp wuy si ko wuy si ko muy kon daal noo ngi soññi nit ñi di soññu góor di soññu jigéen di soññu mag di soññu ndaw ndeysaan buñ nee Ndakaaru nag mhm. man lu may wax Grand Yoff gii laa koy wax xam naa ne Grand Yoff daal neex na la Pape le 7 mars 81 laa fi sañcoon le 7 mars 81 dëgg la di bisu gaawu ni suba ndeysaan macha allah loolu laa fi sañ joon ndeysaan man lee ma am fi ay fan moo tax lu bari fekk na ma fi macha allah am na solo moo tax noo ngi bëgg daal képp koo xam ne yaa ngi Grand Yoff rawatina nag sunu président daayira ni ma ko waxee sëñ jëmb faam sañ jëmb faam ak ñooñu mu àndal ku baax ndeysaan ak sama mbokki Haalpulaar yooyu nga xam ne noo nekkandoo woon foofu Imam Gaye imaam Gaye sama xarit benn imaam Gaye imaam Mafal Gaye moom itam. Jibi Diallo Momadou Ba Jibi Diallo Momadou Ba ñoom ñëpp ci marché macha allah. yow mi nga délégué marché bu baax bi nga xam ne nag. ci njub rek lay dox muy El Hadj Moussa Diagne. Moussa Diagne Mansour dëgg la yàlla na sama borom yàlla moom itam gën ko dëbb kan. ndeysaan ndeysaan jëmb faam nag. Mhm. ku baax waa Sëñ mook sama mag. Mhm. di sama xarit. Mhm. muy Serigne Mbaye Thioub ak El Hadj Talla Thioub. ndeysaan. ñuy sama mag yoo xam ne man ndakaaru ñoom lañ ma dénkoon mhm. ba fii may waxtaane yow mhm. lu may bëgg a def mhm. wala lu may xalaat naa ci dugal seen am na solo jërëjëf moo tax mbay cubb uh-huh. yal na yàlla guddal fan amiin amiin ak njaboot amiin soxna Fatima alaji taala cubb ak uh, soxna Fatima uh, li des ci waxtu bi moom lay xaw a njëkkante jamono ji uh, mu mel ni ki yeneen ci wàccaay gi kañ ngeen bëgg a dem ak ñi bëgg dem rawatina ñi nekk ci Grand Yoff kenn kàddu ga ci yëkkati altineeg jàmm ak salaam le on le màggal gi le douze la waaye altine mooy la kii le onze si lañuy def départ bi buntu kër sëñ Sidi Maxtaar HLM HLM waaw foofu la ca boori corniche ba waaw corniche bi mhm. foofu la ñuy dépare pour feddali kóllëre rek mhm. nde mënoon nañuy def départ bi fii sax Grand mhm. Yoff misira gi ma dëkk mais xam nga rek dangay ngay feddali kóllëre ñu bëri dañuy gaare seen daamar mais dañuy dem àndandoo mu ci biir si wala ah, waaw ci biis yi mhm. ñu dëgbal yoonu Mbàkke Kajoor képp ku ñu am nag foofu lañ daan fekk mhm. ñu àndandoo dugg si bis bi mhm. bis yi bëggoon naa xam nag foofu bëggoon naa xam foofu tam ngir rek nga baal ma ci laaj bi waaye ngir mbokk yi déglu gën a leerlu ndax rajo leeral lañ ca wax euh, dem bi ak dikk bi ndax dafa am loo xam ne moom itam mooy xéewal gi dem bi ak dikk bi daal sëñ bi daal moo daan def xéewal bi yëpp mm, waaw c'est waa moo daan def ah, xéewal bi yëpp nag wax dëgg yàlla mm-hmm. sëñ Abdou Aziz daal képp ku ma am allah moo daan def xéewal bi yëpp uh-huh. moom daal moom nga ñëw rek mm-hmm. taasu barke si bis bi rek uh-huh. tibb yóbbaale lool rek lala sant <laughs> mais leneen daal neex na di sëñ bi la ko moom macha allah macha allah xam nga loolu neex na lépp c'est gratuit noonu nag macha allah yal na ko yàgg mën <laughs> amiin amiin euh, kon daal sa mbokki jigéen ñi nañu la fekk foofee ca kër sëñ si di Moxtaar wallaahi maa ngi woo ñëpp nag mhm. suñu waa daayira bi comme ni ma la ko waxee mhm. di woo waa HLM HLM Grand Yoff woo waa Grand Yoff mhm. waaw HLM bële bu HLM 3 HLM 3 fa jóge ñëw HLM ñëw fii ci Grand Yoff dëkk si fi maa ngi woo tamit waa Yoof mhm. yëpp maa leen di woo woo waa itali mhm. waa France mhm. waa Espagne ndax foofu yëpp macha allah dama fa am ay rakk am fa ay mbokk am fa ay àndandoo am fa ay doom ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ci bés bi daal ñun nit ki amul lu dul bésam waaw di woo ñëpp nag ñu fekk suñu foofu ci suñu bis boobu nga xamante ne amuñu lu dul moom muy Mbàkke Kajoor di le 12 décembre 2023 mhm. ñu ñaan yàlla ñu fekkee ko ay ati at kenn man bañ te lépp lu fa nit ñaan mhm. yàlla na ko yàlla barkeel yàlla ful ko ci njabootam ñëpp ak Sénégal ak ñëpp ak bépp jullit amin amin macha allah jërëjëf soxna Fatima am na solo Fall euh, sëñ Abdoul Aziz Diop kon ma jox la nga joxe kàddu gu mujj gi ak itam message bi ngay wax mbokki taalibe yi waaw dellu fi ñu jóge woon rek bu dee fii ci Ndakaar itam Alaaji Fall mi nga xam ne moo jiite fédération bi ñoo ngi koy soññ ak mbooloom ak sëriñ Masila Njaay moomu nga xam ne lépp lu jëm ci oto yooyu soxna si tudd wala baas yay dem ak xéewali yépp ci loxoom la ko sëñ Siidi Muxtaar tegoon bi mu fi jógee sëñ Moustapha Mbàkke maintenir loolu mu continuer Masila itam ñoo ngi koy sonn ca di ko ñaanal ndax ñu nag nooy jëwriñam ak di soññ bokk yi nga xam ne nekk nañ fii yépp ak sunu rakki bopp di sëriñ Ousmane Diop mu dëkk fii ci wetu école police di sama doomu baay kenn ku nekk xawoon baayam sëñ Modou Baara ci njàmbaar ga ci yoonu Cheikh Ahmadou Bamba bi rawatina kër sëñ Baara Mbakke moom it ñu ngi koy soññ di soññ mboolem fu ab taalibe bi nekk rek ciy déggu sama kàddu maa ngi lay woo ci suñ bis bii nga xam ne noonu amuñu lu dul moom muy Mbakke Kajoor Mbakke Kajoor nag lin ci tàmbali woon di wax rek moom daal képp koo xam ne ni danga ko dégg ci ñëw mosoo faa ñëw fexeel daal la douze yoor yoor ba fekk la fa nga fanaan fa ba asamaan set nga ñaanlu dellu nga xool ba déwén loolu mooy laasi bi nga xam ne ñoo ngi koy laasi nit ñi ñëpp ñëw Mbàkke Kajoor ndax xéewal gi ñu doon ci yéene ñëpp ndax Cheikh Mouhamadou Lamine moo mel noonu mm-hmm. sëñ Baara Mbàkke moo mel noonu mm-hmm. koo xam ne daal fajkatu aajo la mm-hmm. mu woote nga bëgg sa aajo fajo wax dëgg yàlla daal seen nga dem wuy ji ko mm-hmm. kon noo ngi ñëw ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw macha allah am na solo jërëjëf mm-hmm. kon su ko defee rek mu ngi noonu màggalug Mbàkke Kajoor la incha allah bu buñ ci yàlla yóbboo mm-hmm. euh, jàpp nañu ko incha allah mu war a am nag euh, le douze départ bi nag euh, bu dee fii ci Ndakaaru ci aslem lay doon le onze lay doon ci ban heure la onze le onze dix heures rek dix heures ci suba ci suba waaw ñu départ uti Mbàkke Kajoor incha allah incha allah euh, kon su ko def mhm. ma ne ko ñu ngi woo ñëpp nag ndeysaan ñu ngi woo ñëpp suñu xarit mhm. suñu àndandoo yi mhm. defkatu lu baax yi ñu ngi ciy woo yëpp nag amuñu lu dul bis boobu nag waa di ci soññen tamit sama doomu ndey sama xarit Cheikha Ayu mi nga xamante ne bis bi ba mu ko déggee ba tey toogatul nelawatul ak waa daayira bi ñu ngi soññ ñëpp daal Mm-hmm. waaw ñu ngi soññi ñëpp. macha kon su ko defee yal na yàlla mottali. amiin yàlla yàlla itam sotti lépp. la ngeen di yóotu ca bés ba yal na ko yàlla sotti. Euh, boo ko defee rek xam naa ñu. sant suñ Abdou Aziz Diop mm-hmm. euh, donte macha allah fi mu jógee sori na mm-hmm. euh, te itam ku ko xoor xam ne ñëw na ci coona waaye yii ni rek moom laa la doon wax sànq ne yoonu murit amul tànk ginnaaw tànk kanam la am te itam murit ndigal kon macha allah lii yëpp yaa ngi ko def ci ndigal mhm. kon ñu ngi lay yóbbante nuyoo kat ca sang ba na doole ñaan kër gii di waaye tam mu dolli ñaantam suma jigéen wa sama soxna mm-hmm. macha allah yàlla may ko ndam ci li nga xam ne lii la jiite muy nit ku baax nit ku yiw waaye nit ku yaatu waaye nit ku dëgg mm-hmm. waaye nit ku sérieux macha allah mm-hmm. yaakaar naa boo déggee ni waxee yow nii rek nga xam ne tam yéene la waxee kon uh, nga ñaanal ko wax kilifa ga tam mu ñaanal ko yàlla may ko ndam ci li nga xam ne ci la nekk macha allah sëñ Abdoul Aziz <laughs> kooku uh-huh. ndam rek lay am ndax fi mu bokk la incha ndax sëñ jéeri waa daan ndeysaan ndeysaan kenn ku nekk uh-huh. boo yër da nga xam diggam ak seexul xaddim walay laa sim uh-huh. kooku nag kuñ ne ci moom nga bokk muy sa maam xanaa loo amagul laay wax waaye loolu am man du ko wax aa macha allah yal na yàlla nangu na yàlla na ndax fi mu bokk la walay laa sim wane na ko boobu ñuy woote Mbàkke Kajoor Cheikh Abdoul Aziz ma duppee kër googee da caa am cër am na ci cër waaw ndax soxna màggat sugu mhm. moo jur sëñ xaadim mbàkke mhm. ak sëñ Modou Aïssa te ñoom den doomi Cheikh Abdoul Aziz lañ macha allah waaw ñii nuyu njaboot sëñ Abdoul Aziz Baare gépp nag mhm, ndax wolof nag day wax ne ragal péete day xañe wërsëg day xañe wërsëg te man nag sëñ Abdoul Karim xalifa ba ku baax moom boo jàkkaarloog moom rek sa aajo fay borom Mbàkke ku baax ku gore ñoo koy ñaanal mu yàgg fi lool ci wér ba ci sama beneen turandoo di goro ci man itam di mm-hmm. léppam nag di Abdou Aziz Sall mm-hmm. nekk ci kër Sëriñ Baara Louga mm-hmm. moom it gis nañ taxawaayam waaye yooyu yëpp ne damay delluwaat ci sama rakki bopp ji nga xam ne nag fii may wax moom laa bàyyi ca kër ga mooy jëwriñ ji muy Sëriñ Youssou Diop lépp lu jëm ci daayira bi rek moo koy coordonné ca moom lañ ko teg ci loxoom bu dee këru Mbàkke Kajoor ga lépp daal sama rakk la waaye lu mu fa wax loola la ndax maa ko jox ndigal loolu nag cam nangu koy <laughs> waaw man na am na solo wóoru ma ne ku ci bég la ndeysaan maa ngi koy laase bi ok jërëjëf kon su ko defee soxna Fatima ah. ñu ngi lay gërëm di sant baax Euh, di la ñaanal yàlla waaye tam sëñ Abdoul Aziz mhm. yàlla na yàlla jàppale la Louga gee nga jëm nga war a dellu tam yàlla teg la ci yoonu jàmm maa ngi ñaan yàlla bi nga jógee Louga ba baa ngay dikk Dakar jéega boo soqi wala pneu bu oto bi daw euh, macha allah yàlla na ko yàlla def muy gudd fan ak wér yaram ci dooree Seexul Xadim waaye tam ñibbi gi jéego euh, euh, boo soqi yàlla nekk li nga xam ne mooy dam farug bàkkaar ak fan wu ci barke Seexul Xadim kon kontaan nañ ci yow macha allah yow tam ñu gërëm ah <laughs> di la bu baax a baax soxna Fatima ah, kontaan nañu macha allah ah waa kay kon jërëjëf yàlla na yàlla jàppale ñu sant leen gërëm mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg xerawli gi ak rajo Afia international kaddu gi bàyyi ko fii ci immeuble Enda ci Ndakaar mu nekkoon spécial wàccaayu màggalug Mbàkke Kajoor ga nga xam ne jàpp nañ ko incha allah mu war a am nag ñu jël mbokki mi ñu jël mbokki mi voilà bu damanta ñàkk bismillah salaamaaleykum aleykum salaam Mouhamadou Mansour bismillah Ousseynou Thiam eh, sang émission bi. jërëjëf jërëjëf Thiam amaan mbégte bu baax di kontaanaat ci suñu Abdou Aziz moom nga xamante ni moom nga dalal. dëgg la ndeysaan. macha allah xanaa di ko nuyu di ko ziar rek. jërëjëf mi ngi lay fay wax ni nañu jotal suñu nuyoo Serigne Abdou Aziz Sall ci Louga. Mhm, mhm. waaye tamit mu jotal ni xalifa ba suñu Abdou Karim moom suñu Abdou Aziz Baara nga xam ni ñun bis bi ñuy def fii ci ginnaaw raay. Mhm. moo koy taxawee wax dëgg yàlla ànd ko ñoom Cheikh Baara Diop ak mboolem njaboot bi. dëgg la Thiam Babel Cheikh Aziz ak ñëpp. vraiment wax dëgg yàlla waxtaan wi am na solo a ah. a baax di nuyu soxna soos nga xamante ne tamit ñu ci plateau bi. soxna Fatima vraiment wax dëgg yàlla Kajoor moom dëkk la boo xamante ni. Euh, dëkkub Cheikh Mamadou Amine la comme ni ñu ko waxee nga xam ni yoonu mu di fa la sosoo. ku fa dem xam ni yoonu mu di fa la sosoo ndax foofu nga xamante Cheikh Ibrahima Fall sunu sang ba liggéeyaloon na ko Serigne Touba Cheikhul Khadim ñu ko fay tabaxal kër mhm. loolu yëpp nag di ay njëriñ yoo xam kenn ku ci ne ci ñun mun na cee bàyyi xel mhm. euh, su ko defee rek ñu faat li ñu bis bi mhm. comme ni ñu koy defee rek bis la boo xamante ni Cheikh Mamadou Amine lañ koy defal euh, bëgg nag taalibe yëpp comme ni ko sëriñ bi waxee rek ñu daal di dem xam ni nag kuy dem ci dëkk boo xamante ni loo fa ñaan suñu borom may la ko war ngaa am melokaan boo xamante ni moom nga fay yóbbu ñu daal di ànd ak dal ak yar ak teggin rek ndax yoonu murid moom yar ak dal ak teggin rek lañ leen mhm. kon maa ngi koy sàkku ci mbokki taalibe yëpp kuy dem mhm. rek nga ànd ak yar xam ni Cheikh Mouhamadul Moustapha ma fa nekk mhm. xam ni lépp lu baayam ya nekkoon ak maamam ja nekkoon ca la nekk kon kuy dem ci dëkk bu mel noonu kon war ngaa wanewaat sa bopp waaye tamit ñu fàttali ni dëkk boobu dafa dafa taqaloog ay dëkki cosaan yu bari ndax xam ne ni deqale googu nga xamante ni Maam Mor Anta Sali euh, fa lañ ko denc dafa taqaloog moom kon daal. macha allah jërëjëf Cheikh Ousseynou Thiam ñu dellu gërëm ko sant ko bu baax a baax ñaanal ko yàlla mbokk yi kon su ko defee rek mu ngi noonu ni mu ko waxee wàccaayu màgg màggalu ko Mbàkke Kajoor la incha allah ca la ñu nekk fas yéene koo def incha allah rabbi naka di la duus waaye départ bi la onze lay doon bu 10 heures jotee ci kër sëñ si di maxtaar ga nga xam ne si moo nekk ci chorus bi ci asalem incha allah far ñuy départ 10 heures bu soobee suñu borom fas yéene jawale wutali mbakee Kajoor màggal la nag goo xam ne euh, ñam xam la waaye mos xam la macha allah ku fa dem doo dootoo fa gëcc ku fa dem macha allah bu màggal ñëwatee sa xel daal dem ci wàccaayu màggalu Mbàkke Kajoor ndax ngëneel ya ak yokkute ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ndax mbokk yi xam ngeen ne yéen askanu Sénégal xam ngeen ne Serigne Touba Seydou Khadim amul tànk ginnaaw tànk kanam kon Serigne lépp loo xam ne wékku na ci moom muy njabootam amuñu tànk ginnaaw tànk kanam la am kon sëñ Sidi Moxtaar sëñ Sidi Moxtaar moomee nga xam ne moom la Serigne Saliou Mbacke woon waxtaan ak moom ban jàpp bés bi tam waral ko di ko def at mu jot ba mu dellusiwaat nañ xam ne tam bés boobee bésu ngëneel la bésu defaru la bésu yokkute la bésu tuyaaba la waaye Mbacke Kajoor barabu ijaaba la loo fa ñaan yàlla nag ko kon sëñ bi yàlla na yàlla motti lépp te yàlla sotti ñë lépp ci barke Cheikhul Khadim ñu ngi leen di dellu sant di leen gërëm bu baax a baax incha allah sëñ Abdou kontaan nañu lool macha allah di leen digg ndaje incha allah rabbi ba ca li nga xam ne mooy bés ba incha allah luñ ci man mën rek ñu ko def kon bu ko defee soxna faatima kontaan nañu lool macha allah di ñaan yàlla kóllëre gi sa digganteeg rajo Afia mu gën a yaatu macha allah kontaan nañu macha allah Fall jërëjëf mbokk yi seen mbokk sëñ Mansour moom moo nekkoon ci kàddu gi jërë ngeen jëf ci ànd bi xerewlu gi ak rajo bi nga xam ne mooy rajo askan wi jàmm ak jàmm ñu fanaan jàmm waxtaar ko ku ma sa doon Cheikh Bara Yàlla faat ko